Euh, fas yéene àndaat ak yéen ci jataay yi nga xam ne mu assasatul Wafa bi xuququl iman moo koy ànd yéen bi koor gi tàmbulee ba tey jii di juróom-ñetteelu fan bi ñu war a dugg ci ñaareelu ay bés gi incha allah ni ñu ko tàmbulee yàlla nañu yàlla may ñu fekke jeexiitalu ay bés boobu noonu nit ñeen ko waxe woon tey jii nii ñu fas yéene ànd ak docteur Adama Aw di ku ñu xam ci bërëb bii muy Darou Moukhty ak di ko wër di ku ràññiku ci liggéey bi nga xamante ne moom la méngoo muy too wàllu jur ak faj ko ak lépp loo xamante ne aju na ci loolu tey nag loolu nga xamante ne moom la jàng xam ko dund ko di ci liggéey moo tax mu dalal ko bi ngir mu fas ñu ci andi ay tomb yoo xamante ne kenn ku nekk ci ñu dana ko mën a jëriñoo bala ñu koy jox kàddu gi dañuy tënk rek aslëf ci ay yëngutoom mu tàmbulee njàngum tubaabam ci école bu ñuy wax Malick si foofu ci Dakar foofee la jànge ba am certificat d'études ginnaaw bi mu jóge fa dem ci yeneen daara foofu ci biir Ndakaaru ba tey yu ñu wax Kiliman Sow foofee la jànge ba am BFEM ginnaaw bi mu jóge fa dugg ci yeneen daara ci biir Ndakaaru ba tey muy lycée Lamine Gueye foofee la jànge ba am baccalauréat ginnaaw bi mu amee bac ci la dugg ci université bu Cheikh Anta Diop euh, ci banqaas bi nga xamante ne ñooy saytu ñu fa fa la ñuy jàngalee lu jëm ci wàllu bàyyi ma yi mu dugg foofee euh, ànd fa ak ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi bàyyi ko ci yeneen réew yi wër Sénégal wala yeneen réew yoo xamante ne ci Afrique lañ bokk ñi fa gën a ràññiku la tànn dugal leen ci béréb boobu moom nag mu bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoo gën a ràññiku ba tax ñu boole ko ñuy tànnoon boole ko ci ñu war a dugg ci béréb boobu mu jàng fa juróom-benn at ba am. doctorat d'état ci wàll gi nga xamante ne moom lay yëngatu te loolu mi ngi ko am ci atum 1996 bi mu amee doctorat d'état ci wàll googu noonu ci la tàmbali nag di liggéey ba tey ci wàllu googu noonu waaye nag euh, depuis 1996 ba fi ñuy wax yéen génn dëkk bu sell bi di daal moxti yore fi benn clinique boo xamante ne daf cay euh, faj lu jëm ci wàllu bàyyima yi ak lépp lu aju ci loolu kon kooku mooy ki nga xamante ne moom la ñu dalal fii jataay bi tey mu fas yéene ñoo baaxe walla gi nga xamante ne ci la spécialiste wu muy wàllu bàyyi ma ak lu caaju kon incha allah dana indi aslëf ci àq yi nga xamante ne moo moom la bàyyi ma yi am ci doomu aadama yi li nga xamante ne moo war doomu aadama yi ci bàyyi ci bàyyi ma yi ñaareel ba tamit danañu indil incha allah feebar yi nga xam ne moom moo mën a jóge ci bàyyi ma wala feebar yi nga xamante ne moom la bàyyi ma ak doomu aadama mën a wàllantee te li ci ëpp nag bàyyi ma di ko war wàll doomu aadama kon incha allah loolu lu mat a xam la ngir xam nuñ koy moytoo incha allah xam naa ne ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne aju na ci yooyu danañ danañ dikkal incha allah xam naa bu ñàkk bu fekkente ne waxtu yi may nañu ko. dana ñu jox mu noppee ci waxtaan wi incha allah dana ñu jox lenn ci mbokk yi su ko defee dana am ay taxaw seetlu yoo xamante danañ ko def ci li nga xamante ne moom la war a waxtaanee. dana njëkk jox kàddu gi Serigne Lamine di koo xamante ne ku ñu xam ci jataay bii la mu yàgg ci ànd ak ñun su ko defee moom danañu indil tamit li nga xamante ne moo war aju ci wàllu bàyyi may ci lu jëm ci alxu ni ko alxuraan andee ak ni ko sunna su yonent bi alayhi salaatu wasalaam andee suñ ko temps bi mayee tamit incha allah danañ jox kàddu gi sëriñ Moustapha Ndiaye moom tamit mu def ci ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaanee kon pour njëkkante waxtu rek dañuy jox kàddu gi docteur Adama Aw ci tomb bu am solo bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxe tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defuñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah bismillah aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafahu xawli rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi laaxirati xasanatan wa inna azaaba naar rabbana laa tuzig quluubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaani saxiran rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'miniina yawma yaquumu al-hisaab subhaanallaahi wa bihamdihi subhaanallaahi al-aziimi astaghfirullaah al-aziima lazii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum wa atuubu ilayhi mbokku jullit yi mbokku taalibe yi seen mbokk moo ñëw tey di waxtaan yéen ci thème bi nga xam ne ne moom la ñuy wooye àq ak yelleefu jur ku ne xam ne ne que dafa fonk dafa fonk maanaam droit droit yi nga xam ne ne moom la bàyyi may am mooy àqu jur gi lislaam da ko jox importance bu ama am solo laata tubaab yi jug di créer association yoo xam ne ne day wane que jur gi dañu am àq ak yelleef boobu fekk lislaam fent na ko bu yàgg di ci taxaw di ci yëngu te loolu mat na junni at ak ñeenti téeméer donc association yi gis fan yi ku ne di ci yëngu di naan dañu war aar jur gi fekk na moom lislaam lijjanti na loolu bu yàgg donc bu ñu nee àq ak yelleef lislaam moo ko njëkk jox bàyyi may yi bu loolu weesoo comme ni nga ko waxee léegi ci euh, introduction bi bu ñu waxtaanee mbirum àq ba noppi incha allah fas yéene nañ dugg comme ni nga ko waxee ci jàngoro yi nga xam ne ne dañoo bari lool mën a jóge ci jur gi walla doomu aadama yi walla jóge ci doomu aadama yi walla jur gi ñu di ko wooye zoonose ci tubaab. donc man li ma njëkk a digle mooy ñu tàmbalee d'abord ci wàllu euh, àq ak yelleefu jur gi laata loolu incha allah dama bëgg maanaam ñu xam njariñu jur gi ci Sénégal jur ban njariñ la ci Sénégal njariñ bi ci njëkk mooy njariñ côté économie ku ne xam ne nekk boo demee fii ci daral gi xam nga ne jur am na njariñ ndax képp ku am xew foofu ngay jëm te looy jënd jur la mu jëm ci wàllu ngénte wala am euh, walla leen lu mën doon xew bu mën doon daal yaakaar naa jur gi ku ne xam na njariñam ci wàllu woowu jur gi it dañ ko jëfandikoo ngir defar ay yére ay yére doomu aadama <clears throat> gis ngeen jaget yi gaa yi sol ay jaget en cuir yooyu yëpp daanaka ci jur gi lay jóge meew aussi xam nañu ci jur gi lay jóge lu mel ne ndawal lu mel ne beurre lu mel ne fromage loolu it suñu borom jagleel la ko jur gi ñu di ko jëfandikoo ci ñoom bu loolu weesoo am na ñoo xam ne liy jël jur di ko yar seen kër mu xaw a nuru lu xaw a mel ni ay bidaa jël xar bu weex benn melo ne dañ koy bàyyi ci kër gi ngir mu aar kër gi ba lépp lu war a ñëw war a dal ci doomu aadama yi mu dal ci jur googu bon bidaa boobu ku ne xam ne euh, li ci li ci li ci suñu borom wax ndax innaa ataynaaka al kawsara fa salli li rabbika wanhar inna shaanika la taru leeral na loolu képp ku yar jur gu weex yaakaar ne mën na la aar keroog déggu kawsara ki nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñi mu àndal ci lañuy naan yow doo bokk ci ñi ciy naan donc loolu fii daaru muxti war nañ ko weesule suñu bopp war nañ ko jombale suñu bopp te na ma yàlla baal ñu ci bari ay kilifa lañ te dañ koy def man damay faj damay dugg ci kër yi waaye xaru benn melo yi du dara yàlla moo fi nekk moom rek moom la ñuy jaamu. bu loolu weesoo ku ne xam ne nekk jur yàgg na jariñ euh, doomu aadama ci wàllu xeexu jihaat fas yi daanaka ci jihaat daanaka joué nañ ci rol bu am solo gëléem it yàgg na joué rôle. ci wàllu woowu donc wàllu xeex ak wàllu jihaad ku ne xam na jur yàgg na ci jouer rôle bu am solo ci wàllu aussi sport ku ne xam nga ne mbirum loterie yi gars yi def ay fasu course nga xam ne ne nit bu jouer mën na ci gagner ay milliards fas bi nga xam day daw moom it mën na gagner ay milliards ki nga xam ne moo ko moom loolu lislaam da ko xaraamal mu jëm ci wàllu loterie donc loolu ñun suñu wàll intéressé wuñu waaye nag comme waxtaan la rek dañuy junj lépp du ñu bàyyi dara bu loolu weesoo ci wàllu promenade ak randonnée tey boo demee dëkk yu mel ne tubaab jalaaw dafa am ñoo xam ne ne dañuy sàkk ay barab yoo xam ne ne touristes yi dañ fay ñëw wala ñu bëgg féexlu yéeg ci kaw fas yi di doxantoog ñoom bu ñu paree am ab koppar bu ñu war a fay foofu kooku it ñu bañ ko fàtte bu loolu weesoo ci wàllu euh, sécurité ku ne xam nga ne boo demee palais palais présidentiel fi Macky Sall nekk xam nga ne fas yi ñoo fa nekk buy génn rawatina ay fête bu amee fas yi ñoo koy dar fas yooyu ñu ngi leen denc foofu ci gendarmerie bu Colobane vétérinaire di leen toppatoo fas yooyu dafa bokk maanaam ci sécurité président de la république am na aussi ay xaj yoo xam dañ leen ni tàggat bu ñu leen tàggatee. ñuy dem di seet ay drogue ay drogue wala ay yamba wala héroïne lu mu mën doon bu nit ki làq xaju gendarmerie yi mën nañ dugg ba génnee héroïne boobu wala drogue boobu teg ko ci kaw taabal bi donc ku ne xam ne kon jur am na solo lool lool lool waaye jur lu mu am am solo dañ yaakaar ne tubaab yi ñoo ko gëpp gën a ëppal solo comme ni ma ko waxoon ci njëlbéen ba waaye lislaam fekk joxoon na ko cër bu am su am solo ku ne xam ne alquran am na ay suraat yu bari yoo xam ne ne da ko jagleel jur mën naa ci lim lu mel ne suratul baqara muy nag kooku ci jur lañ ko nattee lu ci mel ne suratul an li muy ay yamb kooku it ci jur la ko suñu borom natte lu mel ne suratul namli nga am na ay xorondoom la xam naa ku mel ne sama sëriñ bi sëriñ xaadim euh, moo ma koy gën a xam ndax man taalibeem rek laa wax dëgg yàlla ñooñu bu ma waxee xam nañ fu may waxee man seen dongo rek laa boo xoolee it jargoñ jargoñ suñu borom tudd na ko ci alxuraan jagleel ko ab saar alxankabuut ak saar la boo xam ne ne jargoñ lañ ko jagleel kenn nit du do du waxte fàtte fàttewoo suratul fiil yi suratul fiil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi fii fiili kooku di wax dëgg yàlla euh, ñay la ñay suñu borom dafay natte jur jagleel ko saar donc l'islam moo njëkk jox gëdd jur bu loolu weesoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom dafa fonk fonkoon jur lool mais li muy gënoon fonk ci jur mooy fas fas la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gënoon fonk bu loolu weesoo ab muus muus ndax fas nee na fas dafa nekk loo xam ne ne dafa am daraja fas dafa nekk loo xam dafa gore muusit rafetaayam ak yooyu xam naa moo tax suñu borom euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhanallah yonent bi sallallahu xawoon am cofeel ci ñaari xeetu jur yooyu lislaam nag mësta nangu kuy bundu xataal jur da ko dàq xam nga tey boo demee lu mel ni Chine barki dem maa ngi seetaan benn documentaire ci télévision bi dañuy jël jur gi xaj yi wala lu mën doon Euh, soob ko ci ndox mu tàng nu mu dundee noonu lañ koy soob ci ndox mu tàng bu deewee ñu di ko jëfandikoo ñu ne ndax boo ko soobee ci ndox mu tàng ci lay gën a am ay vitamine ci lay gën a saf ak yu mel noonu ndax ñoom ay xaj dañ koy jëfandikoo bien vrai que l'islam ñu nanguwu ko yéen a fàttalikuit fàttaliku it yonte bi sallallahu alayhi wasallam mosoon euh, di nettali benn nit koo xam ne dafa dafa maroon bi mu maree mu wàcc ci benn teen naan bi mu naanee ba pare mu génn gis benn xaj boo xam ne ne dafay dafa mar ba jël làmmiñam teg ko ci kaw benn ban ban di muucu ban bi ngir mar mu am yërmande ak ñeewantal ci xaj boobu mu dugg ci biir euh, teen bi jël ndox yéegal ko jox xaj bi mu naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kooku sunu borom da ko jéggal bépp bàkkaaram tàbbal ko àjjana ñi saaba yi àndoon ak ñoom saaba yi àndoon ak moom ne ko ah yonent bi sallallahu alayhi kon boog jur gi dañoo am àq mu ne ko waaw waaw jur gi am na àq te képp koo xam ne ne teg nga jur gi loo xam ne ne waroo ko teg bu yomal xiyaamee dañ la tàbbal safara kooku yaakaar naa am na benn xadiisu al yi bu ko bu ko soloo te it ñu fàttali ne que njàpp lu mu nekk nekk farata bala ngaa julli mooy laab laab lu mu nekk nag farata tey boo amoon ndox moo xam ne dafa nekk ci benn satala kepp ab xaj jóge fële li ko lislaam bañ bañ li ko lislaam sip sip pour ñu yar ko ab xaj bu jóge fële mar nga xam ne ndox mi ngay jàppee képp moo fa des lislaam daf la ne na ko jox mu naan yow nga def tiim boobu boobaa sa farata yow mooy tiim nga jox xaj bi mu naan ngir rek wane lislaam nu mu fonkee jur bien vrai que moom xaj la waaye suñu borom da ko jox gëdd gu am solo xam nañ ne xaj it di ko yarit dafa nekk loo xam ne dafa dafa xaraam ndaxte xaj ñett yi rek lañ koy yare daf lay rëbbal daf lay sàmmal wala daf lay wutul sa kër wala mu lay gardeel sa matériel waaye képp ku jug ne man ab berger allemand laa gis neex na ma walla gis naa lu ñuy wax ab dog allemand neex na ma ba nga ko jël di ko yar sa kër te amul la benn njariñ ñu ne saa yoo xëyee lu tolloog doju uhut dana fàq ci say tiyaaba rot ci suuf donc yar xaj dafa xaraam bu dul loo xam dafa lay amal njariñ doju uhut ku ne xam ne ne que diisaa euh, diisaayam euh, moo tax natte ko foofu pour wan ne tiyaaba bu bari bari ngay ñàkk xam nga tey boo xool dañu ne tey nit ki bu wàccee liggéey nga dem fekkee julle jullee néew googu am nga tiyaaba bu tolloog doju uhud boo toppee padd yi dem gunge ko ba ci këram gu nga xam ne mujjee muy këru dëgg ci armeel ya kooku it am nga tiyaaba bu tolloog diisaay doju uhud donc yar xaj saa yoo ko yaree saa yoo xëyee rek lu tolloog diisaay boobu dina wàcc say daraja daanu ci suuf donc ñu war ko moytu bu baax di yare loo xam ne ne lislaam da ko tere am na it benn jigéen yoo xam ne ne dafa jëloon ab muus mu teg ko ci benn barab bañ ko jox lekk mu faatu kooku it bi muy dee suñu borom da ko tàbbal safara pour wan rek que jur dañ ko a jox gëddam war ko jox axam jur lislaam nanguwul ku koy bund xataal yonent bi sallallahu alayhi ne leen bés boo leen boo leen lottal jur googu da ngeen koy lottal ngir jëfandikoo ndawal gi waaye du caagin da ngeen koy lottal jël bopp bi yóbbu ngeen bàyyi ndawal bi foofu loolu yàq la te boobaa di ngeen ko digal seeni borom ku ne xam ne ne que sang boobu sëñ Saaliw di maamu sama sama sëriñ bi sëñ Xaadim moom dafa fonkoon jur ba nga xam ne ne demoon na benn jamono mu ñeewantal. jur gi nga xam ne moom la liggéey ci tool yi daf leen mujj noppal ne léegi bés ni tey ay tracteur la jël yaakaar naa Cheikh Amar daanaka taalibeem la moo ko jàppale ci ay tracteur mu noppal nag yi ne bés ni tey nag yi kenn du leen bayloo ndax yërmande bi mu amoon ci jur donc lislaam yàgg na wane ñeewantelam ak cofeelam ci wàllu jur lépp ci yërmande la ci yërmande la nekk Seydina Omar daa gis benn nit bu yor benn euh, xar di ko diri pour jéem ko lottal mu ne ko tos ko ñeel na la ndaxte jur gi li ci gën mooy boo koy lottal na ko lottal ci anam bu gën a rafet Ibn Abbas nee na yont bi sallallahu alayhi mës na fekk benn waay teg benn euh, euh, jur bëgg ko bëgg ko rey bëgg ko rendi bi mu ko bëggee rendi muy daas paaka bi ci kanamam yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii kenn du ko def ndax boo daasee kanamam euh, ci kanamam paaka bi day mel da ko bëgg a rendi ñaari yoon da koy rendi ñaari yoon ndax daas bi muy bi ngay daas ci kanamam rek fitam bi mën naa rëcc ba daanaka mën na fa mën na fa loru donc jur kenn du ko rey ñaari yoon mooy ngay daas paaka bi ci kanamam kooku lislaam da ko dàq bu loolu weesoo jur kenn du ko rey ci kanamu ay moromam boo naree rendi tey euh, ab ganaar danga koy làq fenn dem rendi ko ñëw indiwaat ko waaye doo fekk ginaar yi taxaw ci kanam nga di ko rendi seen kanam ñoom ñu xam ne foofu la ñuy mujjee loolu lépp ngir wormaal jur la moo tax lislaam di ko digle ibn majja ibn omar moo ko solo hadis la bu yonent bi sallallahu alayhi wane mu ngi xamle ne que jurit boo koy rendi da nga ko war a bàyyi ba mu sedd waaye waroo def comme ni def ginaar yi fii rek ci élevage yi ren jur rek bàyyi ko muy pët pët pët pët noonu daa bokkul ci teggin daal ak worma ak yërmande donc jur boo ko rendee da nga ko war a téye ba mu sedd nga doo ko bàyyi mu dem loolu la lislaam digle jurit boo ko yoree ci barab yeew ko di ko jox lekk lekkam dafa war a mat naanam dafa war a mat te fi muy nekk dafa war a sell du yoon it nga téye xar wala nag nga ne danga ko bëgg a yeew ba mu suur ba nga xañ ko muy tëb ay yu jigéen loolu lislaam da ko dàq loo ko yeew yeew bëgg mu suur ngir njariñ bu mu mën a amal ëllëg yow fexeel ba li nga xam ne àqam la muy dem tëb yeneen xar yi wala tëb yeneen nag yi lu bon bon nga may ko benn yoon wala ñaari yoon nàmpit yu ndaw yi bu ñu ko war a def nga bàyyi ñu nàmp ku ne gis na sàmm yi ni ñuy def dañuy yóbbu jur gi ci caawa gi bu ñu ñibbisee rat rat rat xar yu jigéen ñi ba finalement yu ndaw yi duñu mën nàmp dara loolu tam àq la lislaam nangul loolu dañu war a bàyyi euh, mburt yi di nàmp ci xar yi ndaxte meew moomu suñu borom mburt yi la ko jagleel balaa mu ko jagleel doomu aadama yi ndax ku ne xam na ne xar bariwul meew waaye boo sàmmee dem ba ci yoon bi nga ratt lépp jël jox nit ki euh, xaram bu demee mburtu bi du am lu mu naam loolu vraiment àq la àq la ci jur gi àq la ci ki nga xam ne moo la jox pour nga sàmmal ko l'islam nee nit bu jur gi feebaree walla ñu accidenté yoon la nga woo vétérinaire xam na temps vétérinaire amul woon waaye yoon la nga faj ko yoon la nga faj ko ñu ne it jur kenn waru ko dóor jur bi def na la dara nga jël sa yat di dóor di dóor wala sa mbaam bañ na dem nga ne tey jël tey ma jël yat tey dóor ko dóor mu bëgg dee pour mu dox déedéet loolu lislaam nangu ko jur kenn du ko dóor kenn du ko toroxal boo koy dóor it wala nga koy marqué yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ko marqué ci li jege kanam gi boo ko mënul ñàkk marqué daal na ko marqué fii ci pooj bi loolu la yonent bi sallallahu alayhi digle am na it ñuy def ci yenn dëkk yi xewoon na Sénégal nag bi ma nekkee xale maa ko doon fàttaliku dañ jël ñaari ganaar bool leen ñuy xeex wala jël ñaari nag boole leen ñuy xeex ba ñu gaañante loolu tam lislaam dafa dàq façon defin boobu jëlit lu mel ne ab picc wala lu mel ne pitax nga di ko teg fële di xool nan nga mën a jubee loxo pour di ko jam loolu it lislaam da ko dàq dagg it nopp jur wala nga dagg geen gi yooyu yëpp lislaam rafetlu ko ndax toroxal bàyyi ma bi la ndax euh, nit ki di dund nga dagg ngay dagg cëram nii après nga bàyyi ko mu dem te lottaloo ko loolu dafa metti donc genn yi dagg nii ci mburtu yi nga xam ne li ci bëri sax buñ ko daggee bu yàggee mën na indi lu ñuy wax tétanos ñu ci bari indi nañ ma fa ay ay ay mburtu ci kër ga nee ma dañ jëkk rek yaram bi wow koŋ mel ni mat ndekete genn bi ñu daggoon bëgg mburtu bi baax daanaka moom moo mujjee indi tétanos boobu ci moom nga xam ne amul garab kenn du ko faj. donc euh, lislaam lu mu la digal rek bu ñu ba ci biir nañu xam njariñ li loolu mooy position islaam ci wàllu jur léegi nag ñu jëm ci wàllu lu ñuy wax maltraitance des animaux maanaam bund xataal bi ñu bund xataal jur gi ci àdduna bi ku ne xam na ne que ni ñuy def fi màggal Daaru Muxti bu jotee di jël poson di posone xaj yi loolu xëy na lu baax la parce que xaj yi danger lañ ci population bi man moom loolu rafetlu naa ko parce que lépp loo xam ne ne day indi coono ci doomu aadama ak ci askan bi dañ koo war a faagaagal man loolu ànd naa ci liggéey boobu waaye tey bu doon France la kenn ñemewu ko ndax poson bi nga xam ne tey jii tey moo war a posone xaj yi ñu koy wax strychnine strychnine boobu France sax dañ tere ko jaay xëy na Sénégal dina ut solution ba am amee ko ci yeneen réew yoo xam ne ñoom dañuy jëfandikoo façon yu noonu moom. boo jugee pour rey xaj yi ci mbedd mi ku mel ne Brigitte Bardot association bu am doole la yor moom mooy jug dal sa kaw doo ko ñemee sax ba koy def ñoom dañoo fonk jur ñoom jur bu ñu gis ci mbedd muy taxawaalu am na ay kër yoo xam ne fa lañ ko yóbbu denc ko fa am na ñoo xam ne ñoom seen xaalis ci yore lay jëm toppatoo ay baay ma ak i mala ba tey ci wor ma jur gi ku ne xam ne ne jën yi day day dem benn jamono ñu ne ah tere nañu lekku napp loolu la ñuy wax repos biologique repos biologique mooy nga napp napp napp ba xam ne ji euh, jën yi ñu ngi bëgg a jeex ci géej gi yu ndaw rek ñoo fa des te bu ñu leen nappee jën du amati ñu bàyyi ab diir yu ndaw yooyu màgg ñu doog a permettre at ñu mën nappaat loolu la wax repos biologique loolu yépp ci àq ak yelleefu jur gi la bokk bien vrai que dañ ko def pour maanaam tax euh, jën yi bañ a bañ a jeex Sénégal. dem nañ sax ba tere ku nappee ak caax yoo xam ne dafa sew ndax bu dee caax yu dijj la li ngay napp xëy na jën yu mag rek lay nekk mais bu dee caax yu sew la di nga jàpp li nga war a jàpp di nga jàpp it loo xam ne waroo ko jàpp muy jën yoo sew yoo xam ne doo ko jëfandikoo bu njàggee ci caax bi mën nañoo dee ci biir mu nekk perte Sénégal moo tax Sénégal dañuy tere kuy jëfandikoo caax yoo xam ne dafa tuuti caax yu mag la ñuy utiliser ci wàllu aussi rëbb rëbb ku koy def dafa war am autorisation fii da ngay gis ku mel ne Mahmadan Lo jékki-jékki ne a ah, docteur aw nañu ànd dem rëbb ci àll bi loolu loolu euh, du noonu parce que rëbb dafa war am autorisation gouvernement moo la may autorisation pour nga mën a jël autorisation bu mën ko dem rëbbi ji mais waru jël sa fetal rek dugg ci àll bi nga ne yaa rëbb loolu bu ñu la ci jàppee yaay tooñ parce que am na loi yu koy tere donc lu ñuy wax ouverture chasse ouverture saison de chasse maanaam rëbb bi ñuy rëbb day am benn jamono joo xam ne dañ koy ubbi ne acca may na ñuy rëbb léegi ñi am këyit bu leen may ñu rëbb may na ñëpp ñu rëbb waaye day am benn jamono dañuy arrêté rëbb boobu ne ah léegi daal dañuy bàyyi ngir jur gi mën a defaruwaat loolu yëpp ngir àq ak yelleefu jur gi ak it aar jur gi nga xam ne moom lañu yor ñu bañ a jeex jur gi nga xam ne it bari Sénégal ñuy animaux en voie de disparition wala les espèces en voie de disparition ñoom dañ tere ku leen rëbb lu ci mel ne Inde boo fa demee da gis benn nag boo xam ne day taxaw ci circulation bi bloqué circulation bi ay waxtu waxtu kenn ñemewu ko dàq li ko waral ñoom dañoo jël nag yooyu def ko ay yàlla subhanallah loolu tamit di wane rek ku nekk ni nga joxe gëdd jur gi nga xam ne ne moom moom nga dëkkal Sénégal am na bés sama kër dama gis benn unk foofu ci kaw buy dox ma woo benn maçon ma ne kaay reyal ma unk bi mais man duma laal unk waa ji ne ko mais unk rek la rey ko mais man duma laal unk ndax ñun suñu xeet day bañ ko laal unk donc Sénégal lu ñuy wax unk am na ñoo xam ne ne dañ ko bañ rey te pourtant l'islam dafa ne boo reyee unk da nga ci am tiyaaba boo ko dóoree benn yoon mu dee tiyaaba bi am bokk la boo ko dóoree ñaari yoon ba ñetti yoon donc rey unku dafa bokk ci loo xam ne lislaam da ko daganal ndaxte unku bi ñu tàbbalee yont yàlla Ibrahima ci safara si moom moo doon upp safara si pour mu gën a yànji moo tax képp ko rey unku rek da ngay am tiyaaba ci lislaam mais fii Sénégal am ñoo xam ne ne unku dañ ko boole ci loo xam ne ne daanaka dañ koy wormal duñ ko ñemee laal duñ ko ñemee rey dem na it ba ci mbëtt am ñoo xam ne duñ ko rey bar am na ñoo xam ne duñ ko rey. donc loolu dafa wuute ak li islaam digle rawatina ci wàllu ungu mës naa déglu benn xisa bu jógee ci sëñ Moustapha Ndiaye benn émission bi mu defoon ci wàllu sëñ Touba xaadalaahu laahu maxtaara mu doon ne bés dafa mës toog benn am lu dugg ci dàllam bi mu duggee ci dàll bi sëñ bi ne nañ ko seet waaye bu dee si ndax la buñ ko rey dégg naa gars yi rey ko ci saasi saasi waaye buñ ko génnee gis ne si ndax la woon fekk sëñ Tuubaa xamoon na ne si ndax la mais war ma bi mu war ma loo xam ne du lore xam na ne si ndax mënta lor kenn ca la ne bu dee si ndax la bu leen ko rey tey nga gis xale yoo xam ne dañuy xëy booru 3 heures amuñu benn éducation heure boobu heure bu tàng jër ñu war toog seen kër dallu wala toog seen kër seen waajur leen nettali ni ñu war a doxee ci àdduna wala ñuy nafar li nga xam ne jàngoo nañ ko ci suba si waaye dañuy wër ci mbedd mi di rëbb ay ay ay ay si ndax wala ñu gis benn xaj bu ndaw di ko rëbb ne il faut ñu rey ko xam nga xale boo ko gisee muy def loolu terewuloo ko boo liggéey day soxoon mooy waral nit ñi di rey fii ay doomu aadama ñu naan nan def ba rey nit moo ne waa këram ñu baax la ñu fekk bi mu nekkee xale yaruloo ko xale da koy téye sa kër ci kër gi rawatina waxtu yi nga xam ne waxtu la. waxtu tërte ak waxtu xëyte ñaari waxtu yooyu xale waru ci dox waaye fii dama gis ne sindax ndax xale yi dañ koy rëbb rek te si ndax duy lore parce que sëñ Touba wax na ne si ndax du lore sëñ Touba sax moom dégg naa yoo daaw ko rey bu daloon ci kaw mi matt da koy bàyyi matt ba doyal rek mu dem waaye du rey yoo am na dégg naa ku doon bind nii ci ci aliwa yor daa gi ni sa samp di bind ak xale xalimaam benn weñ ñëw takk ci kaw xalima bi di muucu daa gi mu bàyyi ko mu naan ba pare bi mu naan bi mu naawee la mu commencé bindaat dégg naa jëf jooju rek suñu borom yóbbu na ko àjjana loolu lépp rek jëm ci njariñ bi jur gi am waruma bi jur gi am yi dem na ba ci li lore loi bi protéger ko ne ko ne bu ko kenn laal kande bi nekkoon chef eaux et forêt bi dañ ko toxal léegi mu ngi booru Linguère mës na fi mës nañu ko téléphoné fekk ñu amoon benn réunion fële Sam Yabal am benn pël bu nekk foofu nee ma ginnaaw Ngaranado dafa am ay ay yeew ay yeew yo yoo xam ne ne dañoo dugg ci biir douche am nangu douche bi wanag bi daal yeew yi fa lañ dëkk te ñu ngi jur rek di gën a bari rek di gën a bari rek saa yuy xëyee dañuy dugg ci biir kër gi di lekk mburtu yi ak di tiital doomu aadama yi mu fàttali ma bi taalibe bi ñëw sëñ Tubaa ne ko man dafa am benn jaan boo xam ne ne daf may lëjal di lëjal sama waa kër ci waxtu njolloor sëñ Tubaa ne ko boo demee demal ba tiim ko ne ko jaan Ahmadu nee na mësa tooñ boromam mësa tooñ moromam te bëggul ko tooñ bi mu ko waxee ci la jaan bi ne mes kii it waxtu njoloor lay génn di lekk ay mburtoom bi ñu ko waxee Kande Kande dafa ne loi bi dafa tere kuy rey ay jaan loi Sénégal moo tere kuy rey ay jaan ni ñuy def mooy fexe uta leen yoon bañ dem ci àll ba rek waaye kenn du leen rey donc pour wan rek dëgg la mën nañu aar juruwaay nag dem bay aar loo xam day lore aussi loolu it wax dëgg war nañ ko xoolaat. ñuy jéggi siraat incha allah képp koo xam ne ne yar nga sa jur ba mu mag bu keroog yowmal xiyaamee bu ñu jéggi siraat sa xaru tabaski boobu nga yar nu mu toll rek noonu la si jéggi mel jéggi siraat noonu lay mel ci mu ngi wékku ci eh, baaxaayu xar bi rek tey dégg naa boo amee kuy gu baax a baax nga tabaske ko sa jéggi siraat day gaaw lool da nga neen rey jàll nettal la boo xam ne xaw ma wér na xaw ma wérut waaye daal ñu ngi koy wax bu dee da am nag euh, ay xar nga ne tey jii man de ah nekk naa ko tabaske bàyyi ma jël bu ndaw bii rek denc bële dem jaayi ko mu mel ni rek yow joxoo sa borom gëdd daal ndaxte euh, ku ne xam na ne que euh, jur moom dafa am solo ci doomu aadama foofu laay dikkee ci ki njëkk faat doomu aadama ci suuf muy Haabil daanaka moo ko magam wala rakkam ñoo doon jàppante ci jigéen joo xam ne ne dañ ko doon xëccoo jigéen ju rafet ñu dem ba ci biir seen waajur maam aadama ne leen léegi da ngeen def lu yox xurbaan dangeen ngeen fexe ku nekk li nga war a jaamoo sa borom nga teg ko fii ca la kii ñàkk solo ki indee benn dugub bu ndaw rek ne man di laa jaamoo sama borom ki ci des ki baax ki ki ñu bóom moom ñëw indi benn kuy bu suur teg ko ne ki laa jaamoo sama borom maam aadama ne leen def lu dañuy def lu ñuy wax xurbaan bu dee suñu borom nangu na jaamu yàlla bi dana yónni safara su weex tàll bu ñëw ne ko fuuf yóbbu ko bu ko nangul nag fa la koy bàyyi ki bon ki dugub as dugub bi mu tegoon foofu kenn faalewu ko xar bi nga xam ne ne ku baax ki moom la tegoon suñu borom ñoo yónni safara mu mu war na ko noonu la demee dem dem ba mu iñaane kële ba nu mu ko boomee yenn ko xamul nu mu koy def ba yàlla yónni baaxañ ak yu mel noonu sa boobu ñëpp xam nañ ko donc jur gu am solo suur yaakaar naa booy jox sa sëriñ da koy jox lu baax booy tabaski ñëw it da ngay tabaski lu baax booy jox sa waajur da nga koy jox lu baax lislaam daa bëgg ku bëgg boppam ku fonk boppam léegi nag ñu jëm ci wàllu fas yi fas yi nga xam ne ne boo déggee ñuy wax bund xat bund xatal jur ak àq ak yelleef fas yi ak mbaam yi surtout moo tax ñu koy wax ku ne xam ne ne yàgg ngeen dégg alburaax yàgg dégg ngëlëmu bu ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba xaadalahu laahu maxtaara lahu ku ne it yàgg na dégg fas bi ñuy wax maalaw bu Lat Joor Ngoné Latyr Diop ñoo ñëpp dafa am rôle bu ñuy joué ci histoire looloo waral murit yu bari daanaka ñoom bëgguñu di liggéeyloo ab ngëlemu ndax ni ko sëñ bi yoroon woroma bi ñu koy jox moo waral du ñu liggéey ab ngëlemu wala du ñu ko jaayit tey boo xoolee fas yi ak mbaam yi comme transport dafa am problème Sénégal Sénégal dañu am problème transport tey boo bëggoon sëf dara amul oto bu ko sëf fii ci daaru muxti foog nga jël saretu mbaam wala nga am leneen loo ko dugal donc transport bi ci Touba daarul muxti Tëngéej même dakaar dañuy jëfandikoo lu bari jur gi pour def transport transport marchandise wala transport doomu aadama yi waaye bi Sénégal gisee ne que ci transport boobu day gis nit ku yor yat bu réeré di dóor fas bi wala dóor mbaam bi pour mu dem ca la gouvernement bi neen loolu mënta continuer fekk moom l'islam tere woon na ko bu yàgg waaye lépp lu l'islam def rek gouvernement yi dañ koy copier lépp lu baax ci àdduna lu nit ñi def tey ci l'islam la jóge fekk l'islam prévoiroon na ko depuis junni at ak ñeenti téeméer la lislaam doon toppatoo àq ak yelleefu jur gi donc état yi fi nekk nii jamono yi rek lañ commencé di dugg ci yu mel noonu mu wóoral ne am na fu ñuy rootee te fa roote wu ñu fenn fudul ci ci lislaam tey bu yàggul rek dama sama benn xarit woo nee ma am na benn euh, division maanaam benn banqaas bu ñu sos bu nekk direction élevage boo xam ne ne docteur Baba Sall moo ko jiitee léegi buy toppatoo affaire u ak yelleefu jur musu fi am nag mu ngi doog a am Sénégal suñu benn naatangooy bu ñuy wax docteur Makhtar Seck Makhtar sekk boobu it mooy jiite benn association bu ñuy wax ONG Brooks International ONG boobu moom it ci wàllu fas rek la yëngu képp ku bund xatal fas bu ko yëgee te dal sa kaw donc gouvernement fi ne ni mu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax lislaam dafa tere ku takk fas def ci lu ñuy wax wollu wollu maanaam ay cloche cloche boo xam ne koy takk ci euh, yaram bi mu naan clang lang lang lang lang di ànd ak fas bi xam nga fas bi fekk mu ngi dégg loolu rek di gën sawar ñu ne lislaam loolu da ko dàq daal da ko bañ da ko sib mais ci mbir mi mbaam yi ñoo ci gën a sonn mbaam yi mbaam yi moom kenn tegu leen fenn ni ñuy dundalee ni ñuy dundalee euh, fas yi duñ ko dundalee mbaam yi ni ñuy toppatooyee fas yi duñ ko toppatooyee mbaam yi même ci wàllu faj bi sax mbaam daanaka gars yi joxuñu ko solo bu am solo gouvernement bi nag bu mu sukkandikoo ci lislaam wax ci wàllu àq ak yelleef am na benn arrêté arrêté ministériel bu mu génnee arrêté boo ko déggee ab loi mooy génne tere naa lii ministère bu nekk xool la ci intéressé nga génne ci ay dogal arrêté ministériel boobu moom 1995. lañ ko la ko gouvernement Sénégal euh, génne jamono yi Abdou Diouf la woon jamono yooyu Robert Sagna moo nekkoon ministre de l' agriculture te ku ne xam ne ministère élevage boobu amagul woon agriculture moo ëmboon élevage ëmb agriculture en même temps ñaari bànqaas yooyu yëpp ci ministère agriculture la nekkoon Robert Sagna moo doon ministre bi Abdourahmane Sow moo nekkoon ministre intérieur léegi dañuy créer benn arrêté boo xam ne ne dafa jëm rek ci wàllu fas yi ñuy takk nii di ko dawal ci dëkk bi ngir di ci wut xaalis boobu laa bëggoon ñu waxtaanee koo naxte am na yu bari yoo xam da cee génn dana tax ku nekk xam ni nga war a toogee ndaxte gars yi mosuñu xam ne am na arrêté buy réglementé ni fas yi war a dawee ci dëkk bi kenn mosul xalaat ne nit dafa war a am permi permi fas pour mën dawal fas ko kenn mësul xalaat kenn mësul xalaat ne saret dafa war am visite technique man mii wax dëgg yàlla dafa ma bett moom bi ma gëstoo laa ko gis mais au bi xalaatu moom loolu mën na am sax waaye arrêté bi arrêté ministériel bi war na ma loolu yëpp arrêté bi euh, titre bu njëkk bi ñu ngi ko jagleel ci wàllu technique naka la saret bi war a mel saret bi nga xam ne ne moom la nit ki war a jëfandikoo guddaay bi ñu ne warul wees weesu un mètre quatre-vingt un mètre quatre-vingt guddaay waru ko weesu kooku mooy article numéro numéro deux ndax article un bi mooy wan ne ko sos nañ ko article numéro deux mooy wan ne guddaay bi warul weesu un mètre quatre-vingt ndax la bañ mu gudd ba ëpp ba oto yi bu ñu jàll loolu di laal oto yi ak di leen indil ay coono ñetteelu article bi ñu ne saret bi dafa war a nekk bant walla weñ bu dee wàllu wëtiir euh, la ñetti nit lañu may mu yéeg ci bu dee wàllu saret la juróomi nit ak kiy dawal kon ñeent la ak kiy dawal rek ñoo war yéeg ci saret tey daaru muxti bu saret yi sëfee ñaata nit ñoo nekk ci saret yi ëpp na fukk loolu déjà jalgati yoon la mais nag dëkk la boo xam ne dëkku yërmande la ak dëkku maslaa man tey su doon maay doxal luwaay yooyu xëy na dana am nu ma koy doxalee parce que wax dëgg yàlla nit ñi dañoo war a am lu ñu yóbbu seen kër te boo sëfee cinq rek balaa nga demaat ñëwaat xëy na bëccëg bi doo mën a am lu yóbbu sa kër donc côté boobu it wax dëgg yàlla war nañ ci def yërmande xanaa kañ li may digle mooy bu dee mun ñu yem ci cinq boobu au moins mbaam boobu bu wàccee ñu bañ ko bàyyi mu dem ci àll bi fori dañ ko xont xont bu baax bu boobaa xëy na boo tegee quinze dina xam ne mat na ko ndax ku liggéey ku liggéey war a noppalu te ku noppalu war a liggéey article numéro 4 dafa jëm ci wàllu ni châssis yi war a mel châssis yi waaye kooku man intéressé wu ma damay jàll damay jàll jëm ci wàllu éclairage ak signalisation bi maanaam saret bu nekk war na am lu ñuy wax ab euh, lampe làmp bu muy def ci côté càmmoñ borom saret bi daa war a toog càmmoñ la war a féetee ci ginnaawam mu war a teg benn làmp boo xam ne bu guddee da koy taal ngir oto yi ñëw xam ne lii saret la bu ko tegee ndeyjoor wetu ndeyjoor mooy feeñ càmmoñ bi dara du ci feeñ oto bu ñëwee mën na ko mbëkk moo tax ñu bëgg mu teg ko ci wetu càmmoñ mooy mu toog càmmoñ pour mën di ko contrôler loolu la loi bi wax indi na it wàllu ràng ràng rang yi ñuy takk euh, jur gi fas yi surtout dafa war a nekk ràng boo xam ne ne dafa war a nekk der wala mu nekk nilon te mu nekk ràng boo xam ne ne du gaañ du gaañ fas bi ràng boo xam du gaañ fas bi ñu moytu it ay barab yoo xam ne lu mel ne ay euh, baat bi walla dënn bi wala fii ñetti barab yooyu ñu fexe aar ko boobu ràng bi dafa jaar mu bañ koo gaañ am na benn fas bu ñëw fan yi ci ginnaaw yaakaar naa mu ngi ci biir dëkk bi moom it dënd bépp dafa dagg te xam naa ràng ràng bee ko gaañ moo tax ràng yi warul nekk waru nilon la war a nekk wala wala cuir warul nekk weñ wala leen lu ci taq luy luy gaañ luy gaañ fas bi loolu lépp ci àq ak yelleefu jur gi la bokk gouvernement Sénégal génne ko ci benn arrêté moom moom lay moom lay jàng nii bi ci tegu moo jëm ci wàllu visite technique ñu ne juróom benn weer bu ne fas bi war naa yóbbu war na dem ñu xool saret bi saret bi nga xam ne lañu takk war nañ ko yóbbu visite technique ñu xool ko waaye man Daaru Muxti ak Touba dana ma jaaxal loolu mën nekk ndaxte balaa nga ne naam ne fa mënoo ne dafa war am visite technique te yow créé ay service de yu nekk Touba ak Daaru Muxti service de mine bi nekk Louga war na war nañ ko décentraliser Daaru Muxti ak yeneen dëkk yu mel ne Touba ngir fas yooyu chaque six mois ñu dem mën a xool seen saret xool est-ce que war na kon ne mën a takk am déet saret bi bu ñëwee dañuy xool làmp est-ce que am na ko xool diisaay diisaayu euh, kees gi ndax waa islaawu daare nii gis naa seen kees gi njëkkoon def kees googu baaxul dafa dafa foor lool niñ ko wàññee noonu yem loolu yenu na maana parce que fas boobu daanaka moom mooy liggéey lu ëpp ci dëkk bi donc boo ko liggéey loolu yëpp bëgg ko sëfit kees goo xam ne ne kenn xamul nu mu tollu bu yàggee tout le temps dugg ci kër docteur donc kees gi ni ko defaree nii kees gu am solo la parce que Abdou Khoudous yaakaar naa waxtaan nañ ci nee naa ko man kees gi ànd naa ci donc ma leen ni sonn soññ ak di leen ñaax pour ñu téye kees gi ni mel noonu bañ ko yokk ndax bu ñu ko yokkee rek day sonal fas bi visite sanitaire mooy ne fas bi dañu ne chaque six mois moom dañ ko war a yóbbu ci élevage wala ci docteur Aw du élevage bële rek docteur Aw day liggéey i di fay wala man la man dama am autorisation pour liggéey parce que man privé la waaye nag autorisation dañ ma may pour may liggéey campagne de vaccination jur gi bu bu dikkee gouvernement dafa ma jox autorisation ne ma demal nga vacciner ma soo paree ma fay la donc man dama bokk ci dispositif bi. du caagin état rek mooy faj non état ak privé yi ñooy faj léegi daanaka état sax li muy faj léegi bëreetul li ci bëri privé yi ñoo ko yor parce que ñooy jaay ay garab ak yu mel noonu mais man ak indi fay moom wax dëgg jàmm la ñu séq te incha allah dara du ñu boole sama doomu ndey la donc bu fi nekkee ngeen dem ci moom bu fi nekkul ngeen ñëw ci man noonu foo dem ci ñu ñaan ñëpp dina war a mën a nekk ngeen indi seen jur ñu leen koy xoolal di ko di ko saytu wér yaramam. tere nañu it tere nañu maanaam ku ku indi ay ku ku takk ay fas yoo xam ne yow néew doole fas yu néew doole kenn du ko takk dañ ko tere fas bu feebar dañ ko tere fas bu làggi di soox ak yooyu dañ tere ko takk fas bu gaañu dañ tere ko takk fas bu amagul ñetti at dañ tere ko takk wajan wajan bu ëmb ëmb bu sori dañ tere ko takk yar bi nga xam ne yar bi nga xam yar bi nga xam ne mooy moom mooy dàq fas bi mooy caravage caravage boobu dañu tere ku ko def ay fas-fas ndax boo fasee boo dóoree mu metti ci yaramam dañ tere ku ko def mu nekk weñ dañ tere yet nga di ko dóor mbaam caravage bu nooy lay nekk boo xam ne ne moom nga war a jël pour xëbal ko rek du càggin dóor ko sax pour mu dem da koy xëbal rek boo xàccee sax war na mën a daw waaye cravage wala yet loi dafa tere ku koy dóor fas wala nga koy dóor mbaam na ma bor na ma borom mbaam yi bañ mere nag ak borom fas yi ndax ñoo bokk dëkk bi defar rek laa bëgg comme dañ ma woo pour ma wax ci àqu yelleef ak jur gi ci maandute bi ma bëgg ñu xamee ma damay wax ni mu demee rek waaye mën naa am ànd naa ci yenn yi mën naa am ànduma ci yenn yi mën naa am it ma bëgg defar yenn yi bañ ko appliquer comme ça à la lettre waaye daal yenn yat yi moom di ko dóor fas moom wala di ko dóor mbaam moom genre soxor la may xaw nuru ñu ne it ci article article bi article képp koo xam dafa war takk fas suba ak ngoon yoon da ko wax ne dafa war am ñaari fas takk benn suba takk benn ngoon loolu la bi wax léegi sax la ma Moustapha Ndiaye doon naan liir na article bi nee na ko article bi nee na 6 heures du matin ba ba ba une heure lañuy takk ci suba si ci ngoon gi 16 heures muy 4 heures ci ngoon ba jàpp 10 heures ci guddi muy 22 waaw bu dee nag munoo bañ takk suba ak ngoon foog nga am ñaari fas wala foog nga am ñaari mbaam mais fii gars yi respecté wuñ ko benn fas lañuy dañuy liggéeyee islaamu daare nii war na am ñett ba ñeenti fas waaye benn fas kese. bu ko ne liggéey chaque jour rek mu ngi ci vétérinaire vitamine C yi day jeex calcium bi di jeex magnésium bi di jeex li tax may commencer foofu day man dama bokk ci ñoom moo tax te bay sa weewu tànk moo tax ma leen soññ toujours que rek jur waroo ko sëf lépp dañ ko tere wëtiir wëtiir it dafa am benn bu mu war a sëf mooy ñetti bërigo war ko weesu bu dee saretu mbaam la juróom-ñaari bërigoo la war a sëf saretu mbaam juróom-ñaari bërigoo la war a sëf war ko weesu su ko weesoo rek nit ki mu ngi jalgati yoon te bu jalgatee yoon mooy li ma wax ci kaw yépp bu ko jalgatee am na ay daan yu war a dal ci kawam kooku après dina ñëw dañuy wax forme daan ñu ne it ki dawal fas bi wala ki dawal mbaam bi dafa am solo fukki at juróom-ñett la war a am dangay gis tey nit xëy rek am sa dawal fas wala dawal mbaam yónni benn xalem buy am 10 ans walla 14 ans ne ko demal wuti xaalis mu yëg ci yow saret bi xamul ko de xamul àq ak yelleef doomu aadama yi amul yar yenn saay du ñëpp nag yenn saay bu dee amul yar mën na fi nekk di yàq oto jàmbur yi wala sax muy dal ci kaw nit ñi wala muy gaañ nit ñi wala muy daaneel nit ñi loi bi dafa ne fukki at ak juróom-ñett la nit ki war a am pour mën a dawal mbaam. wala nga dawal fas léegi nit day ñëw ñu ne ko ñaataat nga am mu ne ah awma kàddante ñu ne waaye mais ñaataat nga am mu ne ah man de am naa fukki at ak juróom-ñett lépp rek ngir bëgg dawal waaye juróom di ko ci jàppale ngir mu mën dawal te ku ne xam na ne que fen nu mu diise ci lislaam ndax yonent bi sala kii astafurlah subhanallah euh, sëñ Bas Anda Ñang mas naa dégg muy waaraate ne benn fen weccee na fanweeri njaaloo lislaam it def luy wax kafaara kafaara fen kafaara ngiñ nit ki tey bu giñee waat ne sama doom ji da wax dëgg yàlla ak juróom-ñett la la la am lépp ngir bëgg mu takk parce que amul koy takkal bu waatee te te waxul dëgg day def kafaara kafaara ni muy kafaara bu dee dafa tey dokkooram noonu lay kafaara ci bu giñee te waxul dëgg kafaara ngi nag ñetti mbir la woor ñetti fan yu tegaloo walla nga leel fukki gor yu set wicc walla nga wodd fukki gor yu set wicc léegi moom fen moom na ma yàlla baal nit ñi dañ ko def comme ndox naan maa ngi ñëw léegi sa kër fekk li ko li ñuy wax dara lañ ci gëmut mais boo nee maa ngi ñëw sa kër incha allah bu yàlla dogalee ñëwuloo xëy na am lu la teq ah yàlla dina xam ne ne que yow def nga si kéemtalaay kàttan pour ñëw mais yàlla moo indi dogalam moo tax xale buy takk fas walla mbaam war na am fukki at ak juróom-ñett ma gaawoon tuuti ak waxtu bi ndaxte xam naa sëñ Moustapha njaay ak sëñ Kara Diop bëggoon nañu ma duggaale ci wàllu feebaru jur gi nga xam ne dañuy wàll nit ñi donc euh, damay àggale liggéey ba mu mat sëkk doo ko dugg foofu moo tax am na yu bëri yoo xam ne am na yu bëri yoo xam ne koy tëb. am na carte boo xam ne nit ki da ko war a am pour takk fas wala nga takk mbaam moom la wax carte de cocher carte boobu division régionale des transport terrestres moo ko war a joxe mooy service des mines bi nekk Louga di joxe permis di joxe visite technique service de mines boobu moo war a joxe carte boobu waaye li may ñaan service de mines bu ñu bëggee nit ñi tegu ci yoon nañ fexe ba ubbi ay dépo Daaru Musi ak Touba ak fépp foo xam ne ne fas dafay daw te amul direction bu mën a saytu yu mel noonu waaye boo leen bëggee exiger ñu am carte te yow neewoo fi ah day continuer rek li fi ne moom du jug mukk dossier bi nga xam ne ne moom nga war a déposer pour nga am carte cochée bu lay may bu la gendarmerie arrêté wala police nga won ko carte bi mu bàyyi la ab demande booy adressé la adressé ko service des mines mooy division régionale des transport terrestres bi nekk Louga foofu ngay adressé demande pour wane ne da nga bëgg dawal fas wala da nga bëgg a def euh, transport ci wàllu fas wala wala mbaam demande manuscrite mooy demande boo bind ak sa loxo moom ngay def soo paree nga def sa benn extrait de naissance wala bulletin de naissance boole ci def ci ñeenti photo def ci benn certificat médical pour wane ne wér nga ndax booy transporter ay nit boo wérul di sa xët mën ne wàll donc médecin chef bi nekk fii Daaru Muxti docteur Jong moom moo la war a xool pour wan ne que yow nga pour mën def transport bu loolu weesoo nga am extrait de casier judiciaire bu wan ne que yow mosoo am problème ak yoonu yooyu boo ko boo ko boo ko joxee incha allah di nga am carte boobu bu lay may nga mën dawal fas wala saret waaye waroo xëy comme ça rek tegu ci tali bi dawal parce que bu la yoon arrêté mën nga am problème. service des minutes ci article 22 dana def yenn saa mu xool saret bi est-ce que tegu na ci yoon ak yu mel noonu lépp lëkkaloo mook vétérinaire bi man pour man bëgguma loi loi bi warut a yem foofu loi bi war na dem sax ba ut ay assurance pour saret yi ak assurance pour mbaam yi bu ñu nee mënta am ndax Touba tey boo xoolee Mbàkke Touba yi jóge nañ fa Guana yi jóge nañ fa xëy na baax na xëy na bon na yàlla moo xam mais réew day dox Touba tey dafa nekk ville moderne boo xam ne dañu ne fii ak 10 ans dana nekk la première ville au Sénégal mooy raw dakaar sax ñëpp a ngi bàyyi seen activité Dakar ñëw Touba donc Touba tey dafa yelloo benn développement boo xam ne ne wartu ñu fa gis ay Mbàkke Touba di transporter ay nit comme mu mel ni ay bàyyi ma nga yor donc lu ñuy def noonu di indi ay tata ñuy remplacer Mbàkke Touba yi man ànd naa ci assurance it war nañ mën dem ba fas yi di am assurance ngir bu ñu yàqalee oto yi dara wala ñu laal kenn wala ki yéeg ci kaw fas bi wala mbaam bi daanu gaañu ñu mën ko dédommager ak assurance Jakarta it ñu ngi daw nii comme saa rek di fay ay patente ci dëkk bi waaye ba léegi taxul ñu nekk ci légalité war nañu mën leen utal ay permis war nañu mën utal ay assurance te lu yëpp ay waxtaan rek la dëkk yoo xam ne yu mel ay Burkina Faso Mali Niger yooyu Jakarta dafay dox bu baax donc war nañu mën a waxtaan ak waaye Jakarta yi wutal ay permis yu leen may ñu mën jóge fi dem Dakar sax kenn du leen arrêté parce que transport rek la bu transport amee problème Sénégal dañu xool ay solution alternative Jakarta moo fi nekk ak saret donc nañ jàpp ci yooyu fexe moderniser ko jox leen gëdd boo xam ne ne boo liggéey dañ mën def transport te duñu lor kenn ci liggéey boobu ñuy liggéey léegi nag ñu ñëw ci wàllu daan yi képp koo xam ne ne teguwoo ci yoon maanaam yat ngay dóor sa mbaam wala amoo carte bu lay may nga dawal wala dangay takk suba ak ngoon walla dangay ngay sëf lu diis wala bu jur gi feebaree doo ko faj wala buy soox wala mu feebar da nga koy dawal yooyu yëpp bu dee sàmmonte ak moom am na benn commission bu ñu créé boo xam ne ne ki yor service des mines nekk Louga moom mooy nekk président bi ki yor élevage bi nekk Louga mooy inspecteur régional bi mooy nekk rapporteur ki yor mbirum sécurité publique membre lay nekk ci association bi commandant de brigade territoriale bi nekk Louga membre lay nekk ci association ci kii boobu ci commission boobu représentant collectivité locale yi maire day am benn membre représentant yi dawal fas yi day am membre bu ci bokk fas yi ñu ngi koy dawal waaye am na ñu bëri dawal fas waaye moom mu ñu fas yi ñi moom fas yi dañu am seen représentant ci commission boobu commission boobu léegi képp ku def li nga warul def ñoom ñoo lay àtte pour xool ndax war nañu dañ lay war a aj pendant trois six mois wala sax at wala ilaa dañoo war a interdit doo dawalati ba faw bu dee nit ki dafa laal oto daw kooku wala maanaam mu naan ñoll di dawal saret wala mbaam kooku déllu la boo xam ne bu ñu la jàppee dañu nangu sa permis doo dawal doo dawalati gis nga loi bi depuis quatre vingt la am mais ba léegi nii Daaru Musti sax xamuñu ko man mii sax taxul mu miin ko wax dëgg yàlla mooy wan ne liggéey bu am solo war nañ ko ci def. Sénégal mën nañu voté ay loi waaye pour appliquer ko moo xoo jafe ñoom nañ voté ay loi rek pour naan dañuy bëgg a euh, euh, méngoog commission yi nekk bitim réew ak yu mel pour wane nekk Sénégal pays de droit la convention yëpp ñu koy signé waaye nag signature yooyu méngoowul ak jëf bi jëf bi moo des. am na benn carte carte circulation numéro numéroté boo xam ne ne carte boobu sous-préfet moo ko doon joxe. fi nga xam ne jamono yu njëkkee ay communauté rurale moo fi amoon waaye actuellement comme ay maire yi moo am maire bi mooy joxe carte de circulation numéroté boobu nga xam ne ne sari ak mbaam yi def transport en commun ñoom ñoo ko war a am même président bi yor saret yi bi yor wuti yi nga xam tey mooy mbay Ndiaye li gënoon ci moom mooy ku ku nekk di liggéey saret wala ngay liggéey watiir mu xam ne diw mu ngi liggéey te moom bokk na ci association di cotiser ba bu ëllëgee lu am mu mën a xam ne ci njabootam la bokk donc loolu waxtaan la bor a am diggante moom maire bi gendarmerie direction euh, des mines ak yëpp ak vétérinaire yi ñu waxtaanee ko pour ñu xam ku nekk li nga war a doxal pour lépp rek ngir defar lépp ci maslaa ak yërmande ñu bañ ko def force. képp koo xam ne ñooy boobaa fayoo fayoo say taxe mën nañu fourrière sa mbaam wala ñu fourrière sa voiture léegi nit ki bu takkee fas boo xam ne day soox wala yu mel noonu wala fas bu am défaut mën nañ ko téye nangu kàttam ab diir bu ndaw 3 mois 6 mois wala at waaye nag yii moom day waral ah ñu retiré it carte bi ci ab diir maanaam tey jii euh, mooy fas boo xam ne tey jii tey ràng yi ràng yi baaxul ràng yi bu tegul ci yoon baaxul kooku tamit bokk na ci li tax ñu retirer carte boobu képp koo xam ne ne danga laal nit nga daw nag moom dañuy nangu sa carte ba faw léegi Robert Sagna bi ñu koy signé dafa ne may na gars yi 6 mois ngir ñu mën tegu ci yoon waaye daal li may wax daal mooy service de mines war na ñëw Daaru Muxti wala Touba samp fa banqaas ngir ñu mën a saytu lépp lu wékku ci yow saret yi lépp rek jëm ci yërmande bi nga xam ne sëñ Saaliwu moom la digle woon pour ñu ko yërëm borom fas yi ak borom jur yi te man ci loolu laa ànd ci laay dox ndax man boo ma génnee ci sàmm yi génne ma ci borom fas yi ak watiir yi daanaka bokkatuma fenn loolu mooy pàcc bu njëkk bi nga xam ne ne moom laa bëggoon baaxee nit ñi ngir bañ maanaam mu mu mu déborder loolu ci wàllu fas yi la ci wàllu euh, jur gi nag yi toujours nag yi l'islam dafay tere yonent bi sallallahu alayhi dafa doon tere ñuy marqué fas yi ci seen kanam euh, euh, safurla subhanallah euh, nag yi seen kanam nee na boo leen di marqué nag leen marqué ci seen pooj bi jëlit nag di ko tàpp ni ko pël yi defee sama mbokk pël yi wala séeréer yi tëral nag jël dambal yi képp ko di dóor di dóor di dóor ba mu mokk rumbux loolu di wax dëgg yàlla lislaam rafetlu ko dara ñaaw na soxor na nit ku soxor rek mooy def loolu waaw am na réew yoo xam ne dañuy naan ñoom ay réew yu développé lañu waaye ni ñuy ni ñuy lottalee seen i jur aussi man ànduma ci lu mel ne France tey bu dee ginaar dañuy wékk ginaar yi nii wékkul lu tolloog fële ci kaw teg benn jaasi fii rek ginaar gu romb rek jaasi bu dagg sa baat borom romb rek mu dagg sa baat noonu la da noonu la noonu la ñuy rendee ñoom amul ne bisimilah rahmaani rahim bisimilah allahu akbar amul loolu. rendi rek muy dem rek te ñoom nee ay ay pays de droit de la dañuy ah dañuy dañuy respecté àq ak yelleefu doomu aadama ak jur waaye ni ñuy rende yenn saay man man lu ma jaaxal la looloo waral léegi boo demee France wala sax Sénégal fii yenn xeetu corne ba fii ak jambon yëpp da ngay gis naan jambon xalal wala ndawalu xalal lépp rek pour wan ne ñi koy rendi euh, respecté nañu ma war ma lislaam bi nga xam da nga war ne bismillah allahu akbar doo ko doo ko doo ko lootal léegi sax dafa mel ne yooyu moo gën moo gën a dox tey boo demee ci épicerie yi nit ñi yooyu ndawal la ñuy wër ndawal xalal foo gis ndawal xalal rek daanaka day jeex parce que l'islam ñi ci wékku dañoo bari bari waaye boo xam ne marché bu rëy rëy la donc yàpp ndawal boo jël def ko ndawalu xalal rek mooy boo xam dañ ko rendi ci ni l'islam diglee rek ndawal boobu taxaw daanaka day jeex ci wàllu xaj mooy kalbu kalbu wax nañ ne que lislaam dafa tere ku ko yar xam naa moom moo xam lu tax mu wax ko ndax feebaru say boobu ñu doon wax bu jàppee doomu aadama du wér day faatu kalbu it nit ki pour nga mën a sàmm ak àq ak yelleefu kalbu boobu bu dee da ko am te mënul ñàkk il faut nga koy téye sa biir kër mu bañ di génn ci mbedd mi war na am carnet boo xam ne ne dañ koy vacciner di ci marqué bépp soin boo xam ne ne def nañ ko ci moom war na dem ci carnet boobu pour wane que xaj bi xaj bu wér la waaye xaj yi nga xam ne dañuy taxawal moom rey rek moom amul amul sentiment. léegi nag loolu laa bëggoon a indi ci wàllu ci wàllu àq ak yelleefu jur léegi nag ma jàll ci deuxième point bi mooy jëm ci wàllu jàngoro yi nga xam ne ne moo mën wàll. Euh, nit ñi jóge ci jur gi bi ma ci njëkk ragal mooy feebaru sëqat su bon si ñu ko wax tuberculose tuberculose ku ne xam ne doom benn doomu jàngoro bu ñuy wax mycobacterium tuberculosis moo koy joxe walla ñu koy woyee bacille de coq coq tubaab la boo xam ne moo njëkk moo njëkk a gis doomu jàngoro boobu coq la tudd bokk la koku ginaar coq tur la K O C mooy coq mais jàngoro bi doomu jàngoro mu ngi tudd mycobacterium tuberculosis léegi ni mën a duggee ci nit ñi jaare ci jur gi mooy dangay am nag boo xam ne day am tuberculose muy sëqat di sëqat sëqat sëqat sëqat yow mi koy sàmm boo ko jegee boo sëqatee mën na la wàll parce que ku ne feebaru sëqat su bon si du wàll ci ay naan naa kaas leeg jox nit mu naan ma wàll ah mais sëqat ci asama ci jaww ji la ci jaww ji lay wàll bi di demee nit kuy sëqat booy sëqat da nga war a tourner fële da war a wëlbatiku bañ sëqat ci kanamu nit parce que booy sëqat si nga yor day wàlle boo sëqat ci kanamu nit rek danga koy wàll moo tax feebaru tuberculose ci sëqat lay wàlle di cëpp waaye bu dee ci wàllu jur mën a jaari ci meew moo tax des fois nit bu ñëwee ne dafa am tuberculose bu dee sàmm la dañ koy topp topp topp ba dem ba dëkk ba xool est-ce que amul ay nag boo amee nag bu ñu toppee nag bi du ñàkk ñu gis benn nag bu ciy sëqat bu boobaa nag danañ xam ne nag moo ko moo ko wàll te bu bu ñu deful nag dina wàll ñi si des nan la koy wàlle mooy meew mi nga xam ne ne moom day rat mu jóge ci nag bi sëqat meew moom dañ ko war a tàngal dañ ko war a baxal doo ko naan day jaaxal doomu aadama ñu naan ah naka la ñuy baxalee meew meew da boo ko baxalee mu yàqu moom waaye dañ koy baxalee ci li ñuy wax bain-marie bain Marie tubaab bee ko créé Touba bari na fa lool ñëpp ñu dugg ci wàllu pompe nag xaw ma dagan na xaw ma daganul xam naa ku mel ne oustaz Faye du ñàkk bés mu waxtaan ci pour xool ndax dagan na am déet dañuy jël jiw maniw bu jógee bitim réew di ko dugal suñu nag yu jigéen ñi ngir ñu ëmb bu ñu ëmbee nag yooyu nekk ay métis jël ci nagu bitim réew yi nga xam ne dañuy am meew bari jël suñu nag yi bu nekkee bu jigéen bu màggee ñu pompé waat ko mu jur bu jur bee dem dem dem jur bi bu bari dem dem nañ dem ba nag yi génn fii benn bés rek ma ñuy génnee fukki litre ak juróom ci meew am na sëriñ soo xam ñoom mosuñu d'accord dugg ci ku mel sëñ Mourou Maxtaar moom bi ciy toll ku dem ci moom danaan man du ma ci ànd lislaam da ko aaye mais gis naa ñeneen sëriñ yeneen sëriñ yoo xam ne ñoom ah ñuy fonkale Sénégal dañu koy def donc man sama sama bopp fu ne dafa jaxasoo xaw ma fan la dëgg gi nekk xam naa oustaz Faye un jour ak euh, ku mel ni sëñ Abdourahmane xëy na sëñ Samat lu ñàkk bés bu ñu leen ci laaj yi wax ñu fan la position islaam nekk ndax man bëgg naa dugg bëgg naa jënd nag pompe am ay métis di jaay am xaalis waaye wax dëgg yàlla ñemeegu ma ci dugg fekk xaw ma position islaam donc meew boobu dañ ko tàngal ci bain Marie nee naa la bari na Touba léegi ñuy pompe am soow mu jeex di ko jaay ci épicerie yi. ku mel ne épicerie sëñ Abdou fataa boobu boo fa demee dañuy jaay meew macha allah bu set bu sel man dinaa fa dem di jënd ci waaye meew boobu ñoom dañ koy sellal dañ koy baxal dañ koy baxalee mooy da jël benn mbànd mu rëy def ci ndox di ko baxal di ko baxal di ko baxal jël meew mi def ko ci beneen mbànd bu yem tàbbal ko ci biir ndox moomu di bax nga xam ne ndox mi bax wër meew bi mooy sellal meew mi di ko tàngal ndax meew boo ko baxalee directement day way day way doo ko mën jëfandikoo donc loolu mooy bain marie noonu lañ ko war a sellalee meew mi ngir ñu mën koo naan waaye meew boo boo dem kër alaji Aliou Dieng mu ratal la meew ne la docteur am nga naan rek dem ah bu dee nag bu am sëqat moom mën na laa wàll du ma nag yëpp am nag waaye nag buy sëqat moom kenn du ko rat wala boo ko rattee na nga baxal meew bi moo gën a wóor tuberculose ku ne xam na ne que bu jàppee nit ki day sëqat day jeex yaram bi day tàng te wàlle bi moom wàlle bi surtout ci ay sëqat lay lay amee même fas fas am na jàngoro boo xam day wàll doomu aadama nga yor fas moom am jukkundi jukkundi boobu bu ko nit ñi nit ki yàggee jege rek mën na mën na ko wàll donc jukkundi moom la ñuy wax la morve morve morve jukkundi day wàll doomu aadama ci zoonose yi la bokk zoonose mooy jàngoro yoo xam day jógee ci jur jëm dem ci nit feebaru pays mooy fièvre jaune ku ne xam na ne que ci jur lay jóge fièvre jaune bokk ci li ñuy ragal lool bu ko nit ki amee ñu oh, bul pikiiru ji kii du feebaru docteur bu la docteur pikiiree rek moom c'est fini demal utal ko ay ay ay mocc walla nga utal ko garabu wolof di ko naan waaye pays kenn du ko pikiir lool la ñuy wax te pourtant dañ koy faj waaye nag terewul docteur da ko ragal docteur dañoo ragal pays tubaab bi ñoom boo paysee sax duñ la jege dañuy xaw a ragal léegi nag wàll bi benn doomu jàngoro bu ñuy wax virus am amaril amaril xam naa li mu nekk virus moo tax docteur boo ñëwee sax dafa sol masque comme ni ñuy masqué woo boo boo jege ku am Ebola noonu la war a masqué woo pour jege ku am pays parce que maladie maladie virale la virus bu ñuy wax virus amaril moom moo koy joxe te virus boobu mu ngi dëkk ci benn euh, insecte. benn insecte boo xam ne ne genre yoo la yoo bu ñuy wax aedes insecte boobu fa la dëkk te insecte boobu mooy garder virus bi ñuy wax virus amaril bu ñëwee mat doomu aadama bi rek aussitôt après daf koy jox payis pays nag ku ne xam ne bu ko nit ki amee li tax ñuy wax payis mooy fièvre jaune yaram bi day tàng fièvre day tàng di lox mel ne ku sibiru bët yi day jaune lépp lu ne ci yaram bi day jaune dégg bët yi day jaune muy wàcc wocc yu ñuul kukk dem bay génne deret sax bëti mën na am deret mu wàcc deret ak yu mel noonu euh, gaanuwaay bi tamit du bari tuuti lay gaanuwaay gaanuwaay bi mën naa mën naa mboq sax mën naa mboq léegi ñu jëm léegi ci wàllu feebaru say lépp rek njëkkante waxtu bi ndax xam naa bu ñu paree du ñàkk am ñu war a laaj te laaj yi moo ëpp importance parce que li ñuy wax ni yëpp xam naa ku mel ñoom sëñ Moussa yaay xam nañ ko ndax ordinateur bi mu yor ni moom lu ne mën na ko ci xam waaye nag laaj yi moo am solo parce que laaj yi fa la ñu xamee xam-xam xam-xamu nit ki feebaru laaj mooy feebaru say feebar la boo xam ne xaj yi ñoo koy joxe virus virus bu nekk ci xaj bi feebar feebaru say moom mooy indi feebaru say boobu ci nit bokk ci famille yu rhabdoviridé mais feebaru say ni muy wàllee ci matte rek la mën a wàllee matte il faut xaj bi matt nit pour mën ko wàll oustaz Ahmadou boobu maa ngi lay ziyaare bu baax yow ak oustaz euh, Thierno mbay ñu ngi rafetlu seen waxtaan bu baax ci rajo Daaru Muxti FM euh, donc euh, feebaru say boobu bu xaj bi xaj bi sayee xaj mooy xaj bu génn xaj bu bu génnee day dem di matte rek di màtte rek ku mat tey bu suba mat ka ci des du xàmmee dara day mel ni ku gëlëm yow mi boromam sax mën na la mat man amoon na ni yaay boo xam ne ne dafa juum yar kalbu këram kalbu say kalbu bi say ñoo bëgg ko mat ba dafa tëju ci biir néegam génnul woowaa waa sapeur pompier ba dañuy jël si xaj bi boobu la gëj a yara kalbu ndakaaru donc day day day matt ku mu gis rek matt la te bu la mattee daf lay jox jàngoro bi bu la ko joxee nag boo demul ci kër docteur lëkkaloo ak vétérinaire mu yebal la pasteur pasteur ngay dem jëli say say garab ndax hôpitaux yi amuñu traitement bi hôpitaux yi boo demee tétanos képp lañuy ñuy bërki démb jëm naa saam yabal tase ak ñaari xale yu xaj mat ambulance bi sëf leen di leen yóbbu ci centre de santé bi ma xam li ma xam xam ne ne que am na lu bëri lu ci laxasu loo xam ne ne xëy na sax waa hôpital duñ ko def mais waa hôpital dañu war lëkkaloo ak vétérinaire yi pour bu xaj màttee nit ñu xam quelle est la procédure à faire mooy maanaam naka lañu war a doxalee xaj bu màttee jur médecin day jug vétérinaire jug taxaw ñu tiim xaj bi xaj bi waruñu ko rey parce que ma laajee waa ji mooy ah rey nañ xaj yi sànni nañ leen ma ne ah loolu erreur la de xaj bu màttee nit dañ koy dañ koy téye fexe jàpp ko yeew ko fen wala ñu tëj ko fenn vétérinaire ñëw xool xaj bi defal ko premier certificat de salubrité pour wan nekk que gisul ci moom rage mu koy xool pendant sept jour bu gisul ci moom rage mu bind deuxième certificat de salubrité waaye dès ci premier jour ba képp rek bi bi xaj bi màttee doomu aadama boobu kooku docteur da ko yebal Pasteur institut Pasteur mu commencé jël traitement boo xam ne ne man dem ba trois mois yaakaaruma hôpital bi am nañ ko de docteur Diong xaw ko xamuma mais yaakaar naa bu ma déggee yaakaar naa même Diourbel amuñu ko hôpital bu Diourbel amuñu ko xaw ma nag moom district bokkul ak hôpital régional sagam hôpital régional moo ko amul ñoom yaakaar naa ko am ministère santé war a def décentralisation wu traitement bi Pasteur fexe ba am benn unité boo xam ne da koy def lu ma ne Touba ngir bu xaj màttee kenn fii ñaanu ma ko yàlla nit ki mën dem Touba faju ji di ñëwaat bañ dem ba Pasteur parce que laata xaj bu bu màttee nit ki rek médecin bi da ko war a envoyé Pasteur mu commence jël traitement am en attendant vétérinaire bi di xool xaj bi ba xam na dina say am déet parce que xaj bu matte bu ñu ko mayee 15 jours rek bu dee dafa am say ci yaramam moo tax mu mat dafa war a mais xaj bu say génn màtt nit ñu tey ko 15 jours deewul loolu du say xaj boobu dañ koy bàyyi mu dem bu ko waa gouvernement soxlu pour rey ko parce que xaj bu taxawaalu la dañ koy bàyyi mu dem parce que xaj boobu amul rage xaj bu am rage 15 jours dafa war a dee léegi bu dee ci quinze jours yi nag ñu ne waa ji ah demal toppatoo sa traitement bu mat 3 mois ndax xaj bi la matoon kat faatu na ci 15 jours yi donc rage moo ko reyoon. yow boo traité wul soo moytul di nga say ni moom di nga dem bay matt nit ñi di génne ay lor di yuuxu gis naa koo xam ne dëkk bu ñuy wax ciide bàyyi elu jàng xam na ko dëkk ñoom nguura bese ak desaaka am na ku fa nekkoon xaleel pël boo xam ne ne dafa sayoon xaja ko matt ñu koy négligé daa mujj dem ba say ñu tëj ko ci biir néeg muy matt nit ñi di leen agressé noonu lañ ko tëjee si néeg ba mu faatu donc xaj lu dangereux la tey directeur rajo Daaru Muxti FM mu may naan koñ bi mu dëkkee muy Daaru Bayla ay xaj kese la may interpellé waa état jaarale ko ci Idi fay sama xarit boobu mu fexe jël ay jumtukaay toppaat dëkk bi ñu rey xaj yi taxawaalu ngir mbañ nekk danger si dëkk bi il faut pas ñu koy def màggal Daaru Muxti rek na xaj dafa gaaw a jur xaj ni ñuy dajee noonu noonu la ñuy accouplé woo te ci daje boobu ñu daje guddi gi di yuuxu di sëy seen biir foofu lañuy ñuy wàllantee jàngoro yi pes euh, jàngoro yi euh, say bi muy jàngoro yi rage xaj fu mu dajee xaj fu ñu dajee rek bu benn amee say rek yëpp dañ koy am dañuy màttante di xëccoo seen biir ngir xaj yu jigéen ñi xaj mën na toog fii xeñtu xaj bu jigéen juróom-ñetti kilomètre fekki ko xetu xaj ci xaj bu jigéen dem na ba juróom-ñetti kilomètre ay substance yu wax phéromone phéromone moo nekk ci xaj bu jigéen bi bu tolloo ci bëgg a sëy daf koy gilli da koy dégage bu ko dégager xaj bu toogee juróom-ñetti kilomètre fu xaj bu jigéen bi nekk dina ko fekk si bu beneen ñëw beneen ñëw ñu desee foofu di sëy seen biir di màttante di xeex jàngoor bi da law law donc Idi Faye dama koy ñaan mu lëkkaloo ak mairie bi parce que tamit strychnine dafa cher trop ni monsieur le maire defoon ñu ngi koy gërëm bu baax parce que liggéey benn la mari idi fay benn lañu ni ko idi mën a gërëmee noonu laa ko mën a gërëmee jàppoon na ci bu baax a baax baax pour faagaagal faj yi euh, pour faagaagal xaj yi ma jàpp ne war na ci jàppaat ngir ñu toppaat xaj yi au moins deux fois ci at bi ñu di ko def bañ koo jàpp ci màggal daaru moxti daaru moxti rek ndax léegi dem nañ ba kenn ñemetul génn dem julli ci fajar boo demee ci jàkk yi heure boobu nga néew doole amoo koo àndal amoo aw yat kenn dem jàkk di yor ay yat mën nañu attaqué te daaru bay laa moom ni ñu fa mel moom kenn xamul damay toog di ko dégg ñu jàpp it que xaj ni mën a wàllee feebaru say noonu la aussi muus mën a wàllee feebaru say muus nag ni ma koy wàllee ci xosi xosi dangay jaaxle ne nan lay wee mën a amee jàngoro bi ndax xaj tuflitam bi moo am doomu jàngoro bi waaye muus naka la koy amee muus bu amee jàngoro ci doomu ci tuflit bi boo amee doomu jàngoro ci tuflit bi muus yeesaay day jékki-jékki mel ne kuy nettoyé gémmiñam nii day faral def nii quoi muus boo ko xoolee day mel ne kuy nettoyé gémmiñam ni muy nettoyé gémmiñam di laal làmmiñ bi wey yi day jël doomu jàngoro boobu bu dee am na say léegi bu xosee nit ki rek nit ki ni xaj bi def ni ni mu def bi ko xaj bi màttee noonu la war a toppaatee aussi dem ba pasteur ngir bañ feebaru say jàpp ko bu dee xaj bi bu dee muus moo ko xosi donc ni ñuy reyee xaj yi noonu lañuy ñuy war a reyee muus yi ndax muus aussi dafay joxe feebaru say bu loolu weesoo ñu jëm lu ñuy wax grippe aviaire grippe aviaire jàngoro boo xam ne ne day jóge ci ay ganaar di wàll doomu aadama yi man maa ngi yar ganaar xam naa sama ginaar yi moom amuñu grippe aviaire moom ku nekk mën naa ñëw jënd si moom amul benn problème bu leen jaaxle mais grippe aviaire bi ñuy wax mosuñu gis Sénégal bitim réew la nekkoon xawoon na tiital doomu aadama yi ñëpp ragal ginaaru élevage yu mel noonu waaye fu mu nekk ni daanaka loolu jeex na léegi mais pour revenir ci xaj buy say ni muy mel mooy xaj bi day jëkki soxor bu nekkoon xaj bu calme day jëkki rek soxor di màtt gauche droite bu nekkoon xaj bu soxor day jékki-jékki mu calme noonu la xamee xaj bu rage xaj bu soxor jékki-jékki calme ne tekk moytul xaj bu ne woon tekk jékki-jékki soxor di màtte moytul boo amee feebaru say aussi day génne tuflit bu bari ci yaramam tuflit day baave lu ñuy wax baave day baave noonu la ñu xamee xaj bu am rage donc grippe aviaire aussi même chose moom ginaar yi ñoo koy joxe. pour mën koo moytu nañ fexee di bañ dëkk ak ginaar yi ginaar dafa waram barab bu mu war a nekk waaye Sénégal dañu gis ne suñu ginaar yi ci ëtt bi la ñuy nekk di fa neefare di fa indi ay jàngoro suñu xale yi di ci foo loolu bu jàngoro amee rek maar day maar si mën naa wàll nit ñi parce que amuñu fu ñu leen foo xam ne ne foofu la war a nekk élevage dafa am fu ñu ko war a def donc grippe aviaire ku ne xam ne bu jàppee nit day indi yaram buy tàng ak yu mel noonu pour nga mën cee mucc il faut nga baxal ginaar gi bu baax boo ko boo koy togg boo ko baxalee rek moom daanaka lépp jeex na. maladie de ñëw Newcastle mooy peste aviaire loolu xam nañ ko bu baax suñu gox bi ñu nekk nii jamonoy lool li ginaar yi dañuy feebar fii di dee moom la ñuy wax feebaru pët pët ginaar bi di jékki-jékki ne yogg. wala feebaru yoggoor <clears throat> day jékki ne yogg mel ni kuy nelaw jël laa fi wàcc ci suuf di caar caar boo xam day baxaw mel ne kaas bi jékki-jékki di wëlbatiku di tourner mel ne ku dof boo demee ci bët bi day am lu mel ni sëpp mooy nekk ci biir <clears throat> bal ma loolu mooy feebaru ñëw euh, kastal moom moo am suñu réew bi jamonoy lool li donc loolu bu walee doomu aadama mënu ko indil looraange bu bari daanaka da koy jox lu mel ne rek ab euh, ab wanent lu mel ne wanent rek la koy jox incha allah léegi ñu àggal bu soobee yàlla bi ma bëggoon attirer attention nit ñi mooy maladie de la vallée du rift boobu dama bëgg waa kër docteur déglu ma bu baax a baax docteur Jong lay inter lay ci wàllu woowu la fièvre de la vallée du Rift Rift vallée du Rift dëkk la boo xam dafa nekk Kenya ab jàngoro moo feeñoon di law di law di law jaar ci Afrique du Sud rey fa euh, laal fa lu tollook ñaar fukki junni nit laal na leen fa xaw ma dee nañu xaw ma deewuñu waaye jot na leen laal ñoom rey fa lu ma téeméeri junni xar la feeñ ci Kenya barab bu ñuy wax vallée du Rift jaar Afrique du Sud 1951 actuellement mu ngi Sénégal boo demee ci dex bi jàngoro baa ngi foofu jàngoro bi la koy joxe nit ki ren dina xar boo xam ne ne am na jàngoro bi deret bi laal ko rek mu wàll la wala ilaa xar bi bëgg na wasin nga dugal sa loxo rek di jëli doom bi rek deret boobu laal la mu wàll la jàngoro bi comme sibiru la ab yoo moo koy joxe yoo moom la ñuy wax ay arbovirose arbovirose ay yoo ñoo ko joxe comme maladie de la fièvre euh, maanaam fièvre jaune euh, euh, feebaru pays boobu mook bi ñoo bokk ay xeet lépp ci ay yoo lañ koy wàllante bu jàppee jur gi day mel ni sibiru nit ki dem hôpital di ñëw ñu naan da nga sibiru parce que ku ne xam na ne que jàngoro bu ko nit ki amee feebaru sibiru di ci profito léegi bu nit ki defee TDR mooy test de diagnostic rapide bi ñu def hôpital pour xool jam fii génne deret bi xool na am na sibiru dañuy gis ne nit ki am na sibiru ñu jàpp ne sibiru la fekk ne feebar bi moo ci rax feebar bi day rey rey bu gaaw ndax bu jàppee nit day tàngal yaram bi pendant trois jours da koy miirloo day ragal lu leer lu leer bu gisee rek day daw noonu lañ koy xamee yax yi day metti res bi day neewi mu mel ne kuy tàqali ko sagoom di di di di mel ne kuy naax ak di délirer dégg bët bi du gisati day mel ni ku gëlëm mën dem sax ba daanaka bët bi day gumba lu may terminer mooy euh, feebar yi nga xam ne ne euh, kii moo ko mën a joxe mbaam xuux l'islam bu teree mbaam xuux xam na lu ko lu ko waral ndaxte am na juróom-ñeenti jàngoro yoo xam ne mbaam xuux da koy joxe lu ci mel ne brucellose rouget du porc ténia trichine listériose syndrome pied main bouche douve du chien cysticercose paragonomiase jàngoro yooyu yëpp euh, daanaka mën nañu ne mbaam xuux da ko joxe moo tax lislaam lu mu la teree rek na nga ko sori jazakumulaa xayran muy loo xam ne nii waxtaan wu matala la la ma cay doole rek xam naa ci beneen angle lay doon te angle boobu mooy jéem dëggal rek li xam ne moom la docteur Aw andi xam ngeen ne ñun yàlla suñu borom subhaanahu dañoo indi fii ci kaw suuf ñu nekk ay umam maanaam ay ay nation nekk itam ay xeet ndax wax na ne yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu ñooy ay xeet yoo xam ne dañ fay nekk di lekk di naan ah, di sëy di am ay doom di wére di di wér di màgg di màggat di dee di dekki ëllëg ñu war ñoo pang yóbbu ñu ci mel ni penc mu yawmal xiyaam jugé ñu fa mu am ñeneen ñam ñoo xam ne ni ñoom lañuy ñuy dundandool ci kaw suuf te ñooy bàyyi ma yi ñoom it ñuy ay umam ni noonu wa ma min dabbatin fi l ardi wala taa'irin yatiiru bi janaahihi illa umamun amsaalukum bàyyi ma yépp ay umam lañ ni ñun dañuy lekk di naan di am ak njaboot di wér di wéradi di màgg di màggat di dee ñu di leen pang di leen dekkil di leen pang yóbbu leen yawmal qiyaam àtte leen tam nu ñuy àtte danga dégg sëriñ bi wax ci xas yi dane wa yaqaul qisaasu bayna jamma wa bayna qarnaa li adlin samma kon ndegam ñoom li ñuy def lépp ñoo ko bokk ñoo bokk fuñ nekk kon war nañ leen a bàyyi xel bu baax a baax a baax yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi moom it dafa ñëw ci kaw suuf di nabiyu rahma wa nabiyu ni'ma fees dell ak yërmande waaye fees dell tam ak xéewal bi ko yàlla yónnee itam yónniwu ko rekk ci kaw suuf waa asamaan bokkul walla asamaan rekk la ko yónni waa waa suuf bokkul daf koo yónni ilal kawni bi kaafati mukawinaatihi wa kainaatihi yónniwu ko itam ci ci ñenn rekk daf koo yónni ci ñëpp ci ñëpp la ko yónni bi muxtalifi tashakulaatiha wa tanawuaatiha ci ñëpp la ko yónni bi mu ko yónnee leetar bi mu ko jox ci ñëpp la ko adresse mooy alquran fësal na ca tam ay ndigal ay tere am na foo xam ne dana inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaani wa itaayi sil qurba muy ay ndigal mu ne wa yanha anil wal munkari wal baxyi ñetti ndigal ak ñetti tere ñetti ndigal yooyu ñooy ndey mboolem ndigal yi ñetti tere yee di mboolem nday tere yi kon ñooñu nga xam ne ay bàyyi ma lañ nekk ci kaw suuf yàlla daf ñoo dañoo teg ci seen kaw ñu sañ leen a jëfandikoo sañ leen di leen lekk ko war aka naan waaye ñoo bokkloo nekk ci kaw suuf kon àq ji war suñ diggante ñoom war nañ koo sàmm bu baax a baax a baax sëriñ aawit andi na lu baree bari ci li nga xam ne ni alxuraan tudd na ko ci ñoom alxuraan xam ngeen ne tudd na bàyyi ma yu baree bare bari benn mu tudd ko ngir ñu fàttaliku ay kiimaan yi nekk ci ñoom ndax da nga dégg mu ne afala yansuruna ila li bili kayfa xat kon buy wax loolu dafa bëgg ñu waaru ci bàyyi ma ni mu ko bindee da dégg itam muy wax wal xayla wal bixaala wal xamira li tarkabuha wa zina loolu tam bu ko waxee mooy dafa bëgg ñu xam ne yii ñooñu ko indil ñu war leen a war war leen a taaroo war ñu nekk suñu matériel nga xam ne loolu mooy mooy seenu jaamu yàlla danga nga dégg itam muy wax wal an'ama xalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u linnaasi wa minha taakuluna booy seet li ëpp valeur ci li ñuy sol sëñ aw wax na ko léegi docteur aaw ci bàyyi ma liy jógele muy cuir bu dee ci kër yi itam salon yi gën a cher ci ñoom lay jóge muy kuir bu dee ci mbubb yi itam leen yi gën a cher ci àdduna bi ci ñoom lay jóge muy ngëndal yooyu ñuy génne ci seen seeni seen kawar yi bu dee itam ci wàllu mataa rek nii di nga gis ay xar yoo xam ne nii ña koy yar ngir mataa rek lañ ko jubloo duñ ko lekk sax waaye da nga gis ar mburt ñu ne la cinq millions lay jar muy xari laadun yeeg yooyu kon suñ boroom ñoom daf ñoo daf ñoo indil ñoom mu nekk lu ñuy lekk wala lu ñuy naan wala lu ñuy taaroo loolu tam di am lu am solo sëriñ aaw itam indi na alxuraan ni mu indee maanaam sóoratu yi nga xam ne nii alquran andi na ko muy sóoratu yi nga xam ne nii ay bàyyi ma ñoo nekk ca boppi saar ya mën nañ cee jël sóoratul baqara muy sóoratu sóoratu nag mu njëree sóoratu baqara inna allaha yaamurukum an tasbahu baqaratan ba aaya ba jeex da nga gis ne yonte yàlla Muusa alayhi salaam mi ngi wax ne yàlla moo ma yónni nee na ngeen rey aw nag di décrire nag wi di décrire nag wi ñoom amuñu am lënt ci ban façon nag lañu war a rey ak nu mu war a mel mu décrire décrire ba ne leen bu mu nekk gone bu mu nekk mag na melow wi mel ni ñu discuter ca loola bañ ne d'accord alaana xas-xasal xaq léegi leer nañu xam nañ ban nag lañu war a rey kon nag li mu fës foofu ci sóoratul baqara moo tax ñu tuddee saaroo sóoratul baqara bu njëkkee suratul an'am wa min al xamulatan wa farshan xamula mooy loo xam ne danga koy war di ci sëf yu diis comme ay gëléem yooyu farshan moo xam ne mooy yi ngay yar ci kër yi di leen lekk wa min al xamulatan wa farshan kulu mimma razaqakum la halalan tayyiban ba aaya ba jeex boo dikkee ci suratu ankabut da nga ca ràññiku masalul lazina taxasu kamasalil ankabuuti taxasat baytan wa inna awhanal buyuuti la baytul ankabuuti law kaanu yaalamuun nga xam ne suñu boroom day melal yéefar yi ak li ñuy jaamu ci lu dul yàlla ni mu doyadee comme néegu jargoñ te néegu jargoñ boobu lu muy doyadi doyadi bi yonente bi sallallahu alayhi sallam di di gàddaay di dem euh, Madina te sunu borom bëgg ko làq daa seet li gën a woyof mu làqe ko ko muy al eh, baytul ankabut te suñu borom nee na wa inna awhana al buyuti la baytul ankabuti law kaanu ya'lamun boo dikkee ci sooratu namli da nga gis suñu borom ne hatta isa ataw ala waadi namli qaalat namlatun ya ayyuhan namlu udxulu masakinakum laa yaxtimanakum suleymaanu wa junuuduhu wa hum laa yash'uruuna suleymaan daf doon ñëw di dem moog ay armeem ab armeem Euh, jargoñ yi euh, euh, kii bi xorondoom bi daal ne eey yéen xorondoom yi def leen attention Souleymane mu ngi ñëw ak armeem te di leen nappaaje te man ngeen cee bañ a def man ngeen ko bañ a yëg Souleymane itam xam loolu fa tabassama daaxikan min qawliha mu xam loolu bég ci ngir li ko yàlla may mu mën a dégg wax yooyu nga xam ne nii moom la bàyyi may doon wax boo dikkee ci sóoratu fiil tam muy sóoratu ñay nga gis yàlla ne suñu borom ne alam tara kay fa'al rabbuka bi ashaabil fiil histoire bi tam di lu ñëpp xam abrahatal ashram jëggoon ak yaamam dëkk bu ñuy wax sanaa ne woon day toj ci kaaba gi bi mu ñëwee suñu borom yabal ay picc yu ñëw ñu sànni leen ay xeer bañ dee suñu borom bu ñuy dajale alquran ràññiku gu saar woowu ràññiku ci loolu tax ñu tudde ko sóoratu fiil sóoratu nahl wa awhaa rabbuka ila nahli an ittaxisi min aljibaali buyutan wa min alshajari wa maa yaarisuun summa kuli min kulli chamaraati fasluki subula rabbiki sulalan yaxruju min butuniha sharabun muxtalifun alwaanu fii shifaun linnaas moom itam suñu borom dafa wax yu yambu comme ni ñuy wax yoo yoon ab ab yonente wax yu yambu ne ko demal dugal ci fii nga lekk ci gàncax yi jaaral fii te yoon yooyu ngay jaar man maa la koy xallal boo ko lekkee ba noppi day nekk loo xam ne nii ñëpp dañ ciy mën a saafaru muy lu am solo loo xam ne nii alxuraan tudd na ko te sëñ aw andiko ko euh, docteur aaw ci waxtaana bi muy lu ama am solo xayawaan yi itam muy bàyyi may dañoo am àq ci kaw suuf àq joo xam ne nii dañ fee war a am àq joo xam ne nii dañ fee war a euh, nekk comme niñ fi war a nekkee di lekk comme niñ fi war a nekkee ndax alxuraan wax na ne wal arda ba'da salika dahaha axraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mataan lakum wali an aamikum wali an aamikum la wax mataan lakum wali an aamikum yéen see yéen ak seenug jur xam nga neenu mataan lakum rek bu yam ci waaye wali an aamikum kon yéen ak seen jur gi yéen a ko bokk suñ borom sax buy saxal areen wala muy saxal dugub du saxal dugub ji sans dundub bàyyi may wala mu saxal gerte gi sans dundub bàyyi may ñoom ñëpp lay bokk saxalandoo nga xam ne yow yaa cee topp di buddetaat waaye yéen ñëpp lay lépp lay saxalaat loolu tam lu muy tekki day tekki ne mataa an mataan lakum wala anaamikum alxuraan nee na tam wa faakihatan wa aban wa faakihatan wa aban aban mooy loo xam ne jur gi da koy lekk mataan lakum wala anaamikum toujours da ngay gis alxuraan ni muy lëkkalee diggante nit ak bàyyi ma ngir wone ne li nekk ci kaw suuf yéen ko bokk bàyyi ma itam ni ñuy jaamoo yàlla noonu lañuy ñuy jaamoo yàlla ni ñuy jaamu yàlla noonu la ñuy jaamu yàlla ñu ñuy julli di woor di sujjóot di tasbih subhanallah di def allahu akbar di di di yooyu yëpp ñoom dañ koy def c'est nag ñun ñoo xamul nañ koy defee rek ndax suñu borom nee na wa in min shay'in illaa yu bi yushabbihu bihamdihi walakin la na tasbihahum amul lenn lu nekk ci kaw suuf ndare loola dafay sàbbal ni ngeen koy sàbbale yéen nee na tam walillaahi yasjudu maa fi samaawaati wa maa fi l ardi min daabatin wal malaaikatu wa hum laa yastakbiroon mu ne ñu nekk ci kaw asamaan ak ci kaw suuf ci ay daaba ak i malaayika ñoom dañuy sujjóot ñoom duñu rëy rëylu te ñun gis nañ ne nit am na ci ñun ñoo xam ne dañuy lànk duñ nangoo sujjóotal yàlla ndax xam ngeen bu baax am na yéefar yoo xam ne ñoom dañuy lànk duñ sujjóotal suñu borom te loolu amul ci ñoom kon loolu sax day wone ñun ñenn ci ñoom ci bàyyi ma yi gën ñenn ci ñun ndax ñoom du ñu rëy rëy lu ci jootal yàlla te ñun léeg-léeg nga gis ñu rey rëy lu su jootal euh, ci su jootal suñu borom suñu borom waxat ne alam tara anna allaha yasjudu man fi samawati wa man fi l ardi wa shamsu wal qamaru wal wal nujumu jibaalu wa shajaru wa dawaabu wa kasirun min gis nga dafa lim daal ne ñi nekk ci asamaan ak suuf dañuy sujjóot li nekk asamaan ak suuf bi moo xam jant bi la wala biddiw yi wala weer wi wala montagne yi wala garab yi wala bàyyi may ñoom ñëpp dañuy sujjóot waaye bi mu agsee ci nit neewul nit it day sujjóot dane wax kasirun mina naas ñu bari ci nit ñi gis nga ko ñee ñëpp dañuy sujjóot ñoom muy jamaadaat yi nabaataat ak ñu ñëpp waaye ñu bi mu agsee ci nit wa kasirun mina naas yi daal di cay teg wa kasirun xaqa alayhi xasaab gis nañ ne tam xayawaanaat yi tam dañuy wax dañuy wax comme ni ñuy waxee nii waaye léeg-léeg ñoom dañuy wax ci seen biir ñu nit mu am yàlla ñu may ñuy waxanteeg ñoom ndax xam nga léegi gis nañ ne Souleymane doon euh, bi lu bi waxee moom doon na ko xam am na tam benn conversation boo xam ne nii jàll na diggante Souleymane akum picc picc moo xam ne ñu ngi koy tuddee hut hut ñun ci wolof ñu koy wax musi njubru muy picc moo xam ne nii dafa am jubbu ci muy picc mu rafet mu am jubbu parce que Souleymane dafa ñëw watafaqada tayra dafa dugg fi picc yi nekk daane maa lii laa aral hudhuda am kaana min al ghaibina man di gisuma fi hudhud ndax dafee nekkul ndax daa bokk ci ñi dem daa di ne la u'asibannahu asaban shadidan aw la asbahannahu aw la yaatiyani bi sultaanin mubinin mooy dina ma wax lu leer wala ma caw ko ba muy bëgg a dee wala sax ma rendi ko waaw wala sax ma rendi ko fa ma ko sa xayra mu ne yàgg as ndiir ab diir la toog rek hudhud moomu daal di ñëw daal ne bi maa lam toxit bi daal ne yow Souleymane man xam naa loo xamul am naa information tey yoo xam ne yow amoo xam nga kon am picc mooy wax ab yonente di xam loo xam ne sax moom yonente yonente bi xamagu ko mu ne ko wajituka min saba in bi naba in yaqinin ne ko saba laa jóge nii andi information boo xam ne ni bu wér la picc mi ba léegi mooy wax mu ne mu ne inni wajattu imraatan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azimun wajadtuha wa qawmaha yasjuduuna lissamsi min dunillahi wa zayyana lahum sheytaanu amalahum fa saddahum an sabili fa hum laa yaxtaduuna mu ne ko saba laa jógee nii fekk fa ab buur bu bari alal nit ña wër ko di jaamu ab jant bàyyi fa yàlla saytaane moo leen ruuxa ruux ba dévier leen yóbbu leen ci waneen yoon wudul yoo yoon yàlla waaye bi mu waxee loolu tam Suleymaan taxul mu gëm ko ba léegi kon gis nga su information bi picc mi am Suleymaan mi ab yonente amagu ko ndax Suleymaan nee na ko alaa yasjudu lillahi allasi yuxrijul xaba fi samawati wal ardi wa yaalamu maa yuxfuuna wa maa yulinuuna allahu laa ilaha illaa wa rabbul arsil azim mu ne ko ndax ñooñu dañuy bañ a sujootal yàlla mi nga xam ne nii lu nekk ci kaw asamaan lu mu ruqe-ruqe xam na ko mën na koo génne lu mu nekk ci kaw suuf lu mu ruqe-ruqe mën na koo génne moom lu feeñ ak lu nëbbu la yamale moom yàlla moomu dégg nga allahu la ilaha illa wa rabbul arshil azim yow sées boobu ngay wax tax naan eh, mu toog ci ab séesam yàlla mooy rabbul arshil azim mooy boroom sées sées bu màgg bi ba léegi amagul xamagul li picc mi wax waaye mu ne ko sa nansuru atadaqta am kunta min alkaazibin ishab bi kitaabi haza fa alqihi ilayhim suma tawalla anhum fantur mata yardiuna mu ne dinaa xam ba xam da ngay wax dëgg li nga wax dëgg la wala li nga wax du noonu dama lay yónni ay baat boo demee nga wax leen ko daal di koy sa ay baat moom picc mi mu daal di naaw ba àgg ca buur ba daal di ne yaa ayuhal mala'u ya ulqiya ilayya kitaabun karimun am na xam nga lettre dafa am li ñuy wax lettre shafawiya mooy lettre boo xam ne dañu la ko wax nga war koo wax nit am lettre kitaabiya boo xam ne bind ci kayit ne la jox ko nit bii dañ koo wax picc mi mu dem ne leen innahu min sulaymana ne ko lettre bii may bëgg wax mu ngi jóge ci Souleymane wa innahu te lettre bi mooy bismillahi rahmaani rahim allah taalu alayya waatu mi muslimin mooy bismillahi rahmaani rahim xanaa du ngeen ñëw jébbuli si te bañ a rëy rëylu loolu moo doonoon lettre bi kon gis ngeen ne lettre bi euh, nii lii am picc la moo ko doon wax kon loolu day day wane ne xayawaan yi am nañu wàccuwaay te ñoom it dañuy wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na koo xam ne ni moom it daf doon sonal ak gëleemam bi dikkee yonente bi sallallahu ne man saahibu hasal jamal kan moo moom gëléem gi fa jaa fatan min al ansar am benn waaye bu jógee waa ci ansar daal ne maa ko moom mu ne ko alaa tattaqillaha fi haasihi albahima allati malakakaha allahu innahu ishtaka ilayya annaka tujiuhu ne ko xanaa doo ragal yàlla ci gëléem gi maanaam mbindeef mii nga xam ne nii yàlla moo la ko moom loo ndax ñëw na fii di ma ko jàmbat ñëw na fii di ma jàmbat ne da koy xiifal kon loolu da koy gis ne bàyyi ma yi dañuy wax ndax ñëw na ci yonente bi sallallahu alayhi wax ko ne ko sa ki ma moom damay xiifal ba yonente bi woo ki ko xiifal di ko ko giléem gi bu ko xiifal ndax ñëw na di ma ko jàmbat ku ne itam dégg na itam kalaamu si till gi nga xam ne dafa nekkoon di euh, euh, ki doon sàmm ay gàttam till gi ñëw cof jël ci am xar di daw ak moom mu dàq ko dàq ko dàq ko ba koy bëgg ba koy bëgg a jot mu sànni ko téewul waa ji topp ko di ko dàq till gi dafa mujj jàkkaarloog moom daal di lem geen bi toog ci ne ko waaye saa waay lii ma yàlla wërsëgal nga bañ ma koo xañ ma bàyyi ko ba noppi nga topp ci di ma dàq waa ji tiit ne ko ah till guy wax mu ne ko dalaa yéem mu ne ko waaw mu ne am na lu koy gën a yéeme yonent baa nga fee ca yasriba booba madina yasriba lañ koy wax mu ne ko ma nga ca yasriba di woote yor lu yor alquran di wax di nettali la gaayu njëkk ya daan daan def loolu moo gën a yéeme lii ma def waa ji ne ko mu ne ko demal lu ji ca yonente ba dem fa joxe sa bopp mu ne ko sama gàtt yi laa xamul lu ma koy def mu ne ko dénk ma xam nga ki ko doon dàq bëgg koo lekk nga koy dénk loolu tiitaangee tax mu dénk ko ko bi mu demee yonente bi woo ñëpp ñëpp ñu ñëw mu ne waa ji nettalil li nga nettali mu nettali ko mu ne ko nag dénk naa ko sama sama xar nag mu ne ko demal boo demee dara du ci waaja bam demee dafa fekk dara sikku ca mu rey am xar may ko ko dégg naa ci sama sëñ Moustapha Saliou Mbacké mu nett leen sëñ Daaru Assane Ndiaye sëñ Touba da ko waxoon ne ko bala ngaa faatu di nga dégg li bàyyi ma li njanaw yi wax benn bis nee dafa toog euh, ci garab gi waxtu wii nii rek exactement ñuy bëgg dog ni euh, am ñaari pitax yuy sab mu daal ne sëñ Tuubaa day yéeme rek na ma ne day bala ngaa faatu da nga dégg li bàyyi ma ñuy wax ñaari pitax yii day mel ni mi dane moroom mi fu ñuy fanaani moroom ji ne ko nañ dem ci garab gee ñu jànge alxuraan fanaani fa nes tuuti ñu gis picc yi maanaam daal di ñaari pitax yi daw dem ci garab googu loolu tam sëñ Moustapha Saliou laa dégg mu nettali ko te nee na sëñ Chouaïbou bu Mbàkke moo ko ko nettali loolu tam lu wér a wér la euh, waxtu wee gàtt euh, euh, maanaam xayawaan yi tam dañuy xam ñun luñ dul xam dañuy xam di gis lu luñ dul gis ndax maanaam ñi nga xam ne nii dañ leen di mbugal ci seeni bàmmeel ñoom bàyyi ma yi dañ koy dañuy dégg jooy yi ñuy jooy te ñun duñ ko dégg loolu tam day tekki ne am nañ ab ab dayo am na loo xam ne ni dañ am na tam xisa boo xam ne fii la xewee ci door Daaru Musti defe naa ne Euh, matul juróom benn juróomi at wala ci lay toll dafa am koo xam ne da doon seelu ab taw ñaari pël bi muy seelu taw bi euh, am keneen ku ñëw ñetteel leen di seelu taw bi nes tuuti pël yi déplacé wut kobas waa ji ñu dem changé ci geneen garab nekk fa nes tuuti ak dënnu cinq minutes après dënnu gi dal ci garab googu waa ji laaj pël yi ne ko waaw yéen xanaa da ngeen xamoon ne dënnu dafiy dal mu ne déedéet xamuñu ko woon mais si ndax yi lañ gis ñuy daw di génn ñu xam ne ah ñii am nañ lu ñu xam te ñun xamuñu ko moo tax ñu topp leen waaye ñun xamuñu soon sax lii nga xam ne nii euh, euh, en parlant si ndax sax maa ngi dégg ngay wax ci xale yi ngay xam ne dañuy topp di rey sa ndax yeeg yooyu man loolu perception bi ma ci am mooy euh, Sëriñ Tuubaa dañuy jàngal ñun souvent loo xam ne nii dañ koy jàng théoriquement waaye duñ ko jàng pratiquement am na bayit ñaari bayit ñetti bayit yu mu xaw yu mu wax daf ne Euh, bi muy tàmbali téere bi ñuy wax naxjul xalal xaaj daf ne tariqatul adabi rahmatu saxiir kal abi wal ummi wa tawqiirul kabiir wa jaalu mislika ka li wa ci xaaliqin ala arshi stawa nee euh, loolu njàng mu gudd la mu mu gudd dafa wax maanaam man loolu li ma ci ame mooy yërëm gone du càggee ni nga jël ko rek solal ko lu set jox ko mu lekk jox ko mu naan yóbbu ko école loolu cala naam kenn mënu ko caa génne mais yaakaar naa mooy nga jàngal ko li nga ko war a jàngal te jàngale ko ko fi nga ko ko war a jàngale jàngale ko ko tam ni nga ko ko war a jàngale loolu am solo la parce que sew-sew yu kii la ndax léeg-léeg nit ki doo ko jàngal li nga ko war a jàngal loolu mën naa dem ba jëmmi jamono mu am maanaam euh, gàcce mu am gàcce ndax leneen gis koo xam ne nii daa war a xam lenn formé wuñ ko ca loola ba ëllëg mu am ñu ko topp yaakaar ko ca loola ndek mënu ko loolu gàcce lay doon parce que dañ ko jàngalu liñ ko war a jàngal jàngale ko ko fiñ ko ko war a jàngale tam souvent ñu yóbbu nit faneen foo xam ne ni bokkuñu luñ gëm ñu jàngal ko fa laneen mu dikk di wedd li fi nekkoon loolu tam dañ ko jàngale wut ko ko war a jàng niñ ko ko war a jàngale itam mooy ñu boole ko ak i teggin parce que sëñ Touba lim ñu jàngal mooy loo am am xam-xam te amooy teggin loolu duñ ko tudde xam-xam jamaalukum ilmun wa sa'yun wa adab ñett yooyu dañ dul mën a tàggoo ñu ngi mel ni nga defar sa taax mu rafet ba mu tën naaj ak taw loolu am taax la waaye lay tax ñu di koy yéem mooy finition yaag décoration yaag yooyu loolu nag mooy teggin loolu nag bu ko xale bi formation yi bu amee ci moom jëkk day tax mu xam ana moom day tax mu xam ana moom ana moom mooy sëñ Abdoulaye daa waxoon ne asgor day xam ana moom mooy day xam boppam mooy tax mu gëm boppam mooy tax mu xam li mu bëgg ndax xam li nga bëgg itam yombut ñu bari boo leen laajee li bëgg day nakk-nakkal doog laa wax dara xam li nga bëgg itam dafa am solo loolu formation boobu bu ci jaaree mooy tax mu xam mu mën a atteindre objectif bi mu bëgg te dana tax mu xam euh, pakkatal yi nekk ci diggante bi nekk ci diggante bi di ko gàllankoor ba keroog muy atteindre objectif bi mu bëgg kooka nag ki ko melal noonu mooy mag mi mooy mag mi mag mi bi mu koy melal noonu boobu gone gi gone la bu koy melal noonu gone gi day nekk mag mag mi nekk màggat loolu al yàlla day wax ci alquran allahu lasi xalakum min dufin suma jaala min baadi su quwatan suma jaala min baadi quwatin dufan wa shayba dafay nekk ñetti maraaxil yoo xam ne dangay ngay lompañ jóge ci am kàttan jóge ci lompañ màggat faatu léegi nag ki la teg ci yoon woowu ba nga tekki dafa fekk ne moom ba mu teg boobu quwa la amoon xuwa boobu mu amoon yow nga am doxfu muy euh, faiblesse doxfu boobu moom bu xuwa boobu bu la tegee ba nga am ko moom day fekk mu dem ci marxala lompañ bu ko defee nag yow ci xale bi te bu ma waxee xale bi maa ngi ci jublu kër gi jublu ci quartier bi ku jublu ci dëkk bi jublu ci réew mi lépp benn cercle la bu ñu defee benn formation mën nañoo tëral programme boobu woo xam ne ni mag moomu nekk dox fa wa shayba nga xam ne mënatul dara retraité na lim soxla dina ko am te mag lim soxla jafewul mooy këll ak këlëñ ñi dañuy wax këll ak këlañ la mag soxla mooy lu mu lekk ba pare tëdd boo ko programme yooyu bu ko xale yi xamoon mooy tekki tariqatul adabi rahmatu shaghir kal abi wal ummi wa tawqirul kabir mu des bu am solo boo xam ne ñun moom lañ gën a manqué mooy wajaalu mislika kanafsika sawa mooy bàyyi xel sa morom boo demee ci réewi tubaab yi defe naa dégg moom nit sax da lay gaañ ne baal ma ñun nag mën nañuy xëccoo dara loo xam ne ni kenn waru ko xëccoo wala ngay bàyyi loo xam ne day lor sa moroom wala ngay tifli foo xam ne sa moroom mën nga cee dëgg wala yu bëree bëri yoo xam ne ni doo ci bàyyi xel sa moroom te am na dëkk boo xam ne ni fii ci Japon la nekkoon ñu ko wax euh, Fukushima dafa amoon benn catastrophe mais gis nañ ne bi ñuy génn ci usine bi sa usine baa ngi tàkk dañ doon rang dañ doon ràng ngir ku war a dee rek dee waaye ñun day en temps de paix nga xam ne dañuy dugg ci oto sax da gis buuxante loolu mooy wone ne kenn teg euh, maanaam Euh, bàyyi xel sa morom dara te sëñ bi da ci insisté wa ja'lu si ka nafsika sawa ba pare nag li wajhi xaaliqin ala al arshi istawa nga def ko ngir yàlla loolu lu ci am solo la ndax tubaab yi may wax loolu du caagee ni damay gën référence ci ñoom waaye ñoom bu ñu koy def lu jagal seen àdduna rek a tax ñu di ko def sax lu jagal seen a seen àllaaxira waaye ñun bu ñu ko doon def ñaar yëpp la ñuy am parce que dañuy am àllaaxira ngir yàllaa taxoon ñu di ko def ba pare am suñ àdduna boobu ndax àdduna moom yàlla yaakaar naa du yabal ay malaayika ne leen dem leen ca nit ña jagal leen seen àdduna ñun ñoo ko mën a jagal suñu bopp niñ ko mën a jagal suñu ci biir jagal gi nag mën nañ cee amaale yàlla kon ñu gis ne loolu tam lu am solo la mu nekkoon point bu ama am solo